koo xam ne boo àndeek moom di xeex du la bàyyi mukk boo nekkee ci kaso bi na la fa fekk boo bàyyee njaboot ci ginnaaw dina ko seeti ba mu ko defee la ñuy soog a jóg ñoom ñi nekk ñu ko wër benn par benn soog a dem seeti ñeneen ñi waaye avant mu fay dem kenn ñeme mu dem kenn du leen woo dañ leen doon daw ñoom ñëpp comme ay pest li may wax lu ma xam na mosuma ko wax mais dama xam dossier yi de xam lu bari ci biir Pastef ak ci biti xam lu bari man lii ma di ko wax lii waxuma ko waaye ndokk ba yàlla bindee wuute la ba Ousmane Sonko wuute ñu bari moo tax ñuy sonn ci moom parce que dañu xam mooy kan dañu xam valeur am dañu xam li nga xam ne moom la am ci ay àq ak yelleef yu mu jël jox ko doomu aadama yëpp rawatina ñi ànd ak moom di xeex dëgg du bàyyi ñoña mukk du képp kuy ànd ak moom di xeex nga dëggal sa bopp ci xeex bi lu la manti fekk ci xeex bu Ousmane Sonko du la seetaan kookoo neexe xeexal waaye nit ñoo xam ne àdduna la ñuy wër fekk kuy dem ñu togg ca ginnaawam di xaar mu sotti la nga ñëw toog ne saax nappaaje say jeeg yor say 4-4 yor say poste ministre yor say kii di waxee baaraam profito du jeex ni ko Macky Sall amee la ko Ousmane Sonko amee noonu la ko sëriñ bi amee ndegam sëriñ si ñoo am ay bëkku néegu opportuniste sëriñ si boo demee seen kër am na ñoo xam ne diine indiwu leen fa xam mënuñu fatiha bu mag bu mag waaye na wër sëriñ bi di teg seen i dil noonu la amee ñu wër Ousmane Sonko di teg seeni i dil noonu la amee ñu wër Macky Sall di teg seen i fépp fu ngeen fekk yaakaar aw askan am fa am nit ku koy incarné dana am ñu wër nit kookee ñoo xam ne ñoom la leen yitteel mooy seen bakkan ak seenu noos ni ko Macky amee Serigne Mountakha Mbacké am ko Serigne Mbaye Sy Mansour am ko noonu la Ousmane Sonko amee ci biir Pastef ñoo xam ne seen bopp rek leen fa bàyyi projet ñoru leen na ngeen ci bàyyi xel bu baax li ñuy xeex du caaxaan de projet bi bu leen ko kenn yàq lii may wax dama koy wax pour ngeen gën a taxaw gën a am fulla gën a bari gën a déterminé wu gën a pare pour xeex gën a jël projet bi bañ koo bàyyi ci benn loxo amul kenn ku ñuy bàyyee projet bi ci passé projet bi kenn moomu ko dañoo jiital Ousmane Sonko duñu ko bàyyee benn mbindeef mu di ko yàq ñun ñoo ko moom ñun askan wi buñu ko bàyyi kenn du ko seetal di ko yàq. lépp leer na waxatuñu ay waxi force spéciale ah léegi ay force occulte la ñuy wax ay terrorisme parce que Juan Branco ñëw na léegi ba def enquête am ba génnee ay tur génne photo yi génne balu fetal yi génne lépp teg commande yi ngeen wax ci armée yi Saint-Pétersbourg ba ma koy wax mat na six mois facture yi Juan Branco génne yëpp am naa ko dossier bi laa am tout wax def naa ci live ci ñi may topp waaye booba yéen comme prix làppato la làppato moom muy wax comme man làppato la su may wax en tant que làppato yéen làppato yi du ngeen ma gëm mais su ko doomi bu ko xowaan wala branco wala américain wala keneen waxee di ko gëm mais li am solo mooy xowaan wax ko ma wax ko amul problème li am solo mooy ngeen ni teel a yeewu teel a comprendre teel a xam lu dikkagul ba ngeen mën koo fàggu waajal ko man loolu mooy sama njëriñ di wax loo xam ne agsigul ñu mën koo teel a waajal ba mu ban ñoo bett ban ñoo yàqal suñu projet loolu moo tax may teel wax waaye diw wax ko diw wax ko li l' essentiel li ci am solo mooy nañ ko wax rek ku ko war a wax nañ ko wax loolu ma ci intérêt live naa fii ne leen France dafa yónnee ay ndaw kenn ci mi ngi ministère de l' lu xew ci Sénégal ci walu police xam nako da koy wax France kenn ki fu ndawu France la ma nga ca gendarmerie ba tok lu fa xew da koy xam da koy wax France kenn ki mi ngi ci armée bi lu fa xew lolou wax na len ko fi la tax waan len ko wax barki dem wax na ko fi ñoom ñu ngi doon tuumaal nag naan ay mandat d'arrêt Interpol kay ñoom ci boppam léegi fii ak ay fan fii ay semaine ñoom ñoo dul mën a tukkeeti mandat d'arrêt yi Youssou doon sen observateur yi ci TFM ak revue de presse ak Akhenaton ak force spéciale seen mandat d'arrêt yooyu nga xam ne ay fen la mandat d'arrêt yu baax yi léegi ñu commencé génn léegi ne leen tekk rek léegi mandat d'arrêt yu baax yi samay wax nag jalu muus la li ma leen di wax jalu muus la de mandat d'arrêt yu baax yi vrai yi originaux yi nga xam ne bokkul ak fenn observateur yi ñu doon fene TFM yi ak seen média yi fenkat yooyu les échos yooyu déedéet yu baax yaa ngi génn yooyu ñoom duñ ko tudd yooyu ñun ñoo leen koy wax mi ngi ci kanam jëm ci Bara Sankaré Moussa Fall Antoine Diome ki ñoom Dior Diagne ki seen lappi lappi gi ñu daan lappi aller retour Paris Dakar day dakk léegi day dakk loolu la xamoon ñoom moo tax ci programme bi nga xam ne dañ koo planifier organiser crime yi crime contre l'humanité bi dañ koo planifier organiser ko méthodiquement cible ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a rey te mooy ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom képp c'est une façon c'est c'est extraordinaire nañ ko defee jënd ay fetal jënd ay bal recruter ay nervi nommé ay ñu leen ànd ak ñoom ci police bi ñi àndul ak yow nga wàcce leen ñi ànd ak yow nga nommé leen gendarmerie bi noonu ñi ànd ak yow nga bàyyi leen fa ñi àndul ak yow nga wàcce leen ut ñeneen ministre yi nga namee ministre yi nga xam ne ñoo ànd ak yow laayifuma fii ne leen biram fay bii ñu jël def ko ministre auprès du ministre Antoine Diome wax naa leen waaw wala déet na dañ ko faa teg pour que moom mu dugal nervi yi ci biir police bi di waajal pour que moom nervi yi mu yore ak police Antoine Diome bi ñu mën leen a jaxase est ce que loolu laayif naa ko wala laayifuma ko dama leen laaj yéen ñi may déglu taxawuma fii ne leen police gendarmerie dañoo am problème seen commandement ñoom ñaar ndax gendarmerie dafa dépendre ci ministère des forces armées Merci Sidiki Kaba mais comme Antoine Diom dafa nekk ci au cœur des dispositifs de la mafia de Macky Sall crime contre l'humanité bi Macky Sall organisé Antoine Diom moom lañ nekk commandant en chef bi te comme la police lay gérer te police mësta gérer gendarmerie ndax gendarmerie bokkul ci police gendarmerie ci armée la bokk kon ki nga xam ne ministre des forces armées di première personnalité du gouvernement après le premier ministre dit sur le plan protocolaire nous maître Sidiki Kaba après Amadou Ba premier ministre top en termes de degré d'importance protocolaire du gouvernement Macky Sall premier ministre après maître Sidi Kaba ministre des forces armées ça est en Amérique. mais qui cette opération bandit bi même si di ko dañ ko seppi teg ko fële jël Moussa Fall ne ko légui sa patron moy ki nga xamne moy Antoine Félix Diome ni nga xamne moy yor BIP yor police waye da ci bolé yow coiffé wala yow Anto yow Moussa Fall en tant que haut commandant de la gendarmerie li lépp live naa wax ko fi bo wax leen dañu am problème bo xolé ñaari yoon yi ñu attaquer Ousmane Sonko ci ko otom bi tej ko tout ça ak ci tunnel bi da ngay gis bu fekke xam ngeen armée xam fonctionnement police gendarmerie xam commandement yi xam kenn ku nek rôlam bo mané xol observer da ngay gis dafa am cafouillage dafa am ak sembeuxlo jaxaso entre élément BIP ak élément GIGN ba ci bi ñuy toj vitre Ousmane Sonko boo xoolee ñu toj vitre bi élément GIGN la mais ki doon joxe commandement bi élément BIP la ki nekk BIP di police Antoine Diome di patron moom moo doon commandé ñi nga xam ne ñoo toj oto Ousmane Sonko di ay élément wu GIGN élément wu Moussa Fall Macky Sall le fonctionnement de nos forces de défense et de sécurité nga avons une police ak gendarmerie bok bokk bok bokk ay jëmtukaay mu ba force Antoine suis patron police mu un ki nga patron gendarmerie loolu live fi wax fi. makki Sall ñun lay liggéeyal yéen ñi may saaga ndey ki seen sëriñ si man ngeen di liggéeyal képp koo gis Macky Sall muy xëy di nasaka nocci Mariam Faye Sall ki Amadou Sall ak ñoom ñëpp ak nit dof ndey ak li ñu doon def ak recruteur yooyu ñun ñëpp Ousmane Sonko la ñuy xëyal xam nga dafa am loo xam ne ba léegi bàyyiwu leen ci xel mooy réew mi képp ku jóg di xeex Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngay liggéeyal ndax noonu la yàlla def yàlla dafa xarañ dafa xarañ yàlla dafa xarañ ci ngay xeex. te yàlla bëgg koo yëkkati boo koy xeex yàlla day def lépp loo yëkkati di ko ko jëmee day mujju nekk loo xam ne moom njariñam lay doon moo tax dóor yi leen Ousmane Sonko di door yëpp ñoom yat liñ leen Ousmane Sonko di ñoom ñoo fàq yat yi pour dóor ko Ousmane Sonko yàlla def saa suñu xàccee bu ñu dóoree ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko day mooy yat bi dal ci ëkk bi dellusiwaat ci ñoom toj seen bopp yi. واخنا في تي لايف نلين لي خير دا فا ام باطن دو افيرو ظاهر كيسا افيرو خير نيت واخ تي جاب دول دا فا ام لنين دو نيك تي بير لو خامني خامو لين كو كو في تي لايف وا ولا دير كون يالا بروم خيل يي لاي واخال نيت دوفي بوكو نيتي moo tax man may sonn ci doomu aadama yi ndax dof moom bokkul ku amul xel bokkul ku dul xalaat bokkul yàlla moom alxuraan ji li muy rëy yonent yi mu yónni yëpp àjjana ak safara yeeg àdduna beeg yëpp yàlla nee na bindu ko lu dul mu ñeel xel yi nee na man yàlla li ma sonn ci bindu doomu aadama yi àjjana ak safara fenn ak dëgg àdduna ak alaaxira alxuraan yi ma yónni yëpp lenn képp moo tax ma def ko ñu ne ko lan la mu ne nit ñi ñu ne ko ñan mu ne borom xel yi ñooñu képp tax may sonn man yàlla ku dof bokku ci ku yor sam xel te doo ci xalaat bokku ci yàlla nee na xel yi lay waxal yow nga ne yaa lànk doo nekk nit dof nga yow da ngay judd ci dof màgg ci dof topp ab sëriñ ci dof ba xëy dee ànd ak moom nekk ab dof bokkoo ci xadara yàlla bi bokkoo ci xadara bi yow bokkoo ci xadara yàlla bi léegi nak bu ci suñu kala ji gannaaw ba may indé historique gu li xew démb ñi giñ ma doon ŋàññi ak Akhenaton lii farce spécial ya bi xex biñ doon xex bi passé passé mënu mu fa nekk man suma ma demoon ba jënd carte passé man passé suma ma fu ma fa duggon dama ko dérange motax man duma dugg passé Pastef ma carte passé suma ma bay militer passé dama j'allais faire exploser le passé parce que dama am ben liberté de ton ben mom sama bop go xam di wax sama xalat go xamne Lalu Pastef mënuñu ko supporter ndegam ci biti laa nekk di wax mënuñu ma supporter su ba nekkon ci biir Pastef musiba am di moo tax ma maa xam sama bop du ba len yàqal dara du ba len déranger du ma dugg ci seen mbotay mbootaay du ma dugg seen mbir di fa dem dafa indi ay histoire nit day xam bopam ndax dama mom sama bop dama libre man am samay bëgg-bëgg ak samay choix yalla xir ma ci ma bëgg Ousmane Sonko top ci ginnaawam di liggéey pour mu jot réew mi du jëmmam ji motax waye mebet bi mu am ci réew mi ak li ñu jaay ci ngor ak njub ak yéene ci réew mi as gor su ne bu la yàlla baaxee nga amum xel am lu toll ne tarafatal ay na ci lu dëggu ci yow ngay as gor dëkk ci réew mi bëgg Sénégal te bëggantu woo ko muy dëgg ci yow nga xàmmee dëgg ak i fen te nangu dëgg mën a dàq fen lii may wax bu nekkee ci jëmm ju manti doon ci réew mi te mënoo bëgg Ousmane Sonko li ngay wax dëgg ci yow loo c'est pas la science kenn du ko démontrer bo patriot patriote bëgg réew mi bëgg dëgg ak bëgg defar réew mi ta nga ne nga bëgg Ousmane Sonko li ngay wotu dëgg ci yow kon li ñuy xeex du caaxaan du ay parparlo du ay xarito du ay mafia ay lobby bir Pastef kenn ku ci nekk di ragantay mbag du yooyu li ñuy xeex moo mag loolu kon loole lépp nag tey yàlla dogal na ci baaxam ci xarañteefam ci ànd gi mu ànd ak ñun ci xeex bi ñu dem a dem ba Juan Branco tàbbi ci xeex bi di gone gu ndaw feetagul ci nen maa ko mag yéen ñi bari ñi may déglu yéen a mag Juan Branco gone guy doog a cuuju ganaar buy soog a feet ci nen la bu bokkuloon nag cuuju Antoine bi Antoine moom cuuj buy fen la Juan nag cuuj buy doog a feet ci nen la moom di wax lu leer monté dossier bu leer boo xam ne dossier bi dafay indi lépp day wane ne lii Macky Sall def te mooy boom gi mu boom doomi sénégalais yi non seulement ak coobare ci coobareem la ko defee xam nga mën nga rey nit ci accident rey nit ci accident tayoo ko ci ñàkk tayeef ci ñàkk fàggu waaye nee na moom xawaan li Macky Sall def boom gi mu boom askanu Sénégal waxu nee na yemul rek ci bëgg gi mu ko bëgg moom Macky da koo bëgg fàggu ko waajal ko utal ko ay pexe ak i moyen ak i jëmtuwaay yoo xam ne da koy mën a tax moom Macky Sall boom gi mu boom sénégalais yi mu mën a antu mu mën a sotti moom no <laughs> yéen li yéen yéen déggu leen antuwaan de parce que dañ leen ko wala a falul ndax yëfi tubaab la xam nga affaire affaire tubaab la nag du ay moom du affaire ay maam yu baax nag moo tax il faut ngeen dégg tubaab nag il faut antuwaan pour ngeen dégg ko il faut ngeen tubaab bu ngeen déggul tubaab mu leen ko wax tubaab yi muy làkk du tubaab yi njëla Antoine nee na boom gi ñu boom askan wi du boomu yeewu ci nelaw gént rek sànni sa fetal wala wala nga accidenté déedéet boom la boo xam ne kenn gént ko dañoo xëy toog di ndékki am yéene na ci ndékkikaay ba damaa bëgg rey ay ndaw yi Sénégal muy mébét boo xam ne danga koo mébét gént de danga koo taxaw yéene ko ci sa biir xol liñ naan gëm yàlla da ngay am shahada da ngay yéene ne yàlla kenn la noonu la Macky Sall taxawee ci biir xolam ne damay rey sénégalais yi da koo yéene laata mu koy def waaye ba mu ko yéene yamu ci daf ne lii ma bëgg gannaaw ba ma ko bëggee danaa ko jéem a jëmmal mu ñaareelu mbir bi ñetteelu mbir bi mooy naka laa koy jëmmalee mooy dem jënd ay sox. benn ñaareel bi dem jëndi ay nit yoo xam ne dama leen dugal ci biir police bi dugal leen ci biir gendarmerie bi ñu ay samba booye yoo xam ne duñu policier duñu gendarmerie waaye dama leen dugal ci biir ndax li ma bëgg police mënu koo def gendarme mënu koo def ndax amul sañ-sañ bi yoon da koy tere waaye nag mënuma ko ñàkk bëgg def ndax Ousmane Sonko mi ak njabootam ji suma len téewul dañ ma wàcce te dañ may tëj ndax rew mi lu bon nga la fi def kon na jël lépp lo xam pexe la te muy violence ak man na boom wa keur Ousmane Sonko yi ma boom len waye comme police mënu mako defal ak gendarmerie ndax yoon da len koy tere na uti ay samba boye yo xam ay marron du feu ay vert du de l'arbre am xam nga ay jaune du soleil kenn ku nek ay rouge du sang kenn ku nek couleur bi mu àndal mu tuddé ko autour di ay samba boye yoo xam ne ay làppato yoo xam ne wengal ngembaleen jur ñu jox leen ku ne juróomi junni par bis dugal leen euh, ci biir armée beeg police beeg gendarmerie bi jox leen ay sox yu mu jëndi faggu ko ay milliards yi milliards jënd ay sox dugal leen jox leen ko nag day leen bu ñu jógatee ñoom ñi ànd ak waa kër Ousmane Sonko nga xam ne moom Macky néewul day rey Sénégalais yëpp de ci biir waajal gi dafa am ñu mu tànn ne ñii lay rey loolu tamit li garaawal dossier bi ci la bokk li tax mu gën a garaaw CPI loolu da cee bokk ne képp koo gis mu jóg boom ci aw askanam ab lim bu xaw a takku boo xam ne ki ko def da ko am yéenee def waaye yamu ci waaye dafa ut li nga xam ne mooy tax mu mën koo def te mooy moyens yi mooy jëmtukaay yi fetal wala posene wala lu mu mënti doon mu uti ko uti ay nit yi ko ko defal ñu ànd ca def ko waaye tamit mu def ko ci defin woo xam ne defu ko mu daj ñëpp waaye dafa am ñu mu tànn ca askan wa na ñi kottu laay jëm ci seen kaw pour leen muy cible <laughs> dama leen di faram fàcceel xuwaan de <laughs> liggéey bu set wi ci la liggéey ñu naan wuy xamul dara mënut a am marché mille fa mille mille euro France avocat la bu patati patata loolu ay doomi làppate ñi nga xam ne ñoo seen ndey ñoo bokk ndey ak baay ñoo koy wax genre Cheikh Yérim Seck nga xam ne moom yaay ma bokk ndey ak baay ñoom ñooy wax loolu ci Juan Branco Juan Branco jàng ba yëyi xam luy procédure xam luy recevabilité d'une requête au niveau de la cour pénale xam l'article 13 l'article 15 donc euh, du statut de Rome xam lépp nekkoon fa auprès donc du procureur spécial liggéey ak au niveau du bureau du procureur nekk ab avocat bu am doctorat en droit xam luy procédure xam les conditions de recevabilité d'une requête Juan Branco n'a pas fait une plainte auprès de la CPI Juan Branco a fait une enquête d'instruction, une enquête minutieuse de rassemblement de l'ensemble des pièces du puzzle nous évaluer que ko ba c'est suffisamment grave c'est extrêmement grave Bien ñaarel bi mu pièces yek vidéos, yek vidéos, commentaires yek témoignages pour ba ne ci bari ci ci constituer des éléments constitutifs pour déclencher une procédure d'enquête auprès du procureur spécial de la Cour pénale internationale suivant les articles du article 13, article 15 du statut de Rome. ay ñoom Aïssata tatal Sall toog ay ñoom Ismaïla Madior Fall ay ñoom pousse Antoine diom toog di fen quoi toog ci télé yi di fen ay Karim Fofana jaay tu Café Touba ñu toog di fen quoi ñoom di wax sénégalais yi kenn xamul quoi mais na sénégalais yi jànguñu quoi amuñu xam-xam quoi toog di fen quoi li mu dajale yëpp nag moom la jël jébbal ko procureur bi ne ko nag indil naa la ay firnde ak yi mbir yoo xam ne boo ko saytoo yow procureur bi mënoo ñàkk a jóg ubbi ay enquête topp ñi nga xam ne ñoom laa la ne ñoom ñoo def ñaawteef fii jëmale ko ci seeni doomi réew te boom leen ñi ma sim lim muy téeméer ak fukk ak ñaari nit yi nga xam ne seen tur ngi ci biir lii nga xam ne mooy enquête bi nga xam ne man Juan Branco avocat def naa ko njëkk indil la ko jébbal la ko yow procureur tribunal bi nga xam ne mooy CPI yi li ëpp ci liggéey bi def naa ko am na nag luñ ci war a gën a xóotal ci enquête waaye loolu boo sukkandikoo ci lii ma la jox ba ubbi ci ab enquête enquête bobé moy gëna xóotal ndax da nga am san sañ yow dem Sénégal déglu ministère déglu police yi déglu nervi yi déglu gendarme yi déglu homme d'affaires yi nekk ci biir déglu élément français yi nekk ci biir déglu France France lan mooy yoonu France ci réew mu mel na Sénégal ñu ne moom moom boppam depuis 1960 lan la doomi France di nasaka not ci fan yi naseeka not lépp loo xam ne mooy réew mi lu tax doomu France mën a toog ci diggu xolu Sénégal police gendarmerie armée lu ñuy nasaka not mu fekk ko di ko wax réewam te doomi Sénégal mënta fekk fu ñuy nasee ak fu ñuy nocee ci réewum France loolu ak njaam la Juan Gran Juan Branco mi dëkk France di doomu France moo leen xamal loolu yéen làppato yi Juan mi néewul Sénégal mosu fàtte tànkam de cëpp na fa ñu ne ko dugaat ci avion bi avion bi la indi doo fi bàyyi acca takka Sénégal doo fi wàcc Macky dàqu mosu faa ñëw waaye wax na leen ci Sénégal yéen ñi dem ak dikk yéen xamu leen ko Sénégal yéen Fran Juan mi dëkkul Sénégal mosu fàtte tànkam li mu génne ci yu leer yéen ñi fa dëkk xamu leen ko kon wax naa leen ko démb li ngeen waroon a njëkk jàpp ci mbir mi te ngeen waroon cee xëy kenn ku ci nekk di ci wax ba bëccëg mooy fexe ba France taxaw wax moom lan bana rôle la joué ci mbir mi ak lan moo tax France yëpp Sénégal bay di nasaka nocc ci boom gu ñuy boom doomu Sénégal France ànd ci comme niñ ko defee woon Rwanda ba ñu ko defee Paul Kagame ba France ànd ak ñenn ñi nga xam ne ñooy Hutu yi ak Tutsi yi monte leen ba ñu reyante ba plus de huit cent mille morts am Rwanda ba Paul Kagame jógee dafa dàq France génn ko ci biti Rwanda yi am nañu fulla li Tutsi et les yi am nañu fulla centre africain yi am nañu fula Burkina Burkina day am nañ fula le pays des hommes intègres de Thomas Sankara ñun nak ay Senghor lañu am ak ay yu kenn xamul ay Macky Sall ak i mag ñu baax Serigne Touba ak Alaaji Malik yoy ngeen nek motax du ngeen jóg nek ci ay làppato ciogu rek tubaab yi nek ci suñu kaw bop yi parce que amuñu fulla amuñu fayda gàmmu magal cant ak barki señ bi ci yooyu lañ nek waye nak Rwanda yi taxawé pour gamé am seen fulla ba génn France sepp ci àll ba France leen doon jaxassé Yun ñun France jaxassé nañu France Juan Branco moo taxaw wax ko lim ay turu ay colonel ak ay lieutenant colonel français yu nekk biir Sénégal di nasa ko nocc ci biir police bi di nasa ko nocc ci biir gendarmerie bi di rendre compte seen ambassadeur ambassadeur bi di ko yóbbu France muy dem Quai d'Orsay muy dem Quai d'Orsay ministre des affaires étrangères français ñu def ci ay notes yóbbu ko Élysée ca Emmanuel Macron ñii xam li xew boom gi ñi boom doomi Sénégal yi rey leen France xam na lépp ànd ceeg Macky Sall na patt jàpp njàmbur Juan Branco ko wax dem leen ngeen déglu ko. ngeen toog di xoole naan dañuy tabaski France dama bëgg visa France ambassade de France ana sëñ Mountakha fii ana sëñ Mbaye Mansour tey da ngeen waroon jóg taxaw fi fipp comme ni waa Mali def contre la France tey France moo taxaw Sénégal tey ji ànd ak mak Sall ñi boom doomi réew mi leen rey loolu France du ko def aw xeetam mukk France du ko def doomam lu tax muy nangu ñu koy def Sénégalais yi parce que ci yéen la ci yéen Sénégalais yi dégguma kenn ku ci wax moo tax François Branco mënut a def lépp moom li man mooy leeral leen wax leen kenn ku ci nekk loo ci def la ca def nag yet ya ngay ni war a fàq yéen sénégalais pour xeexal seen i noonu moo xam France la moo xam ku mënti doon ak Macky Sall yet woowu Franco Fran Juan Branco du ko fàq du ko yore amul doole jumtee yet comme yéen lekk rek ngeen fi nekk ak yi ndambeeki mbaxali saalum lekk ngeen ba mel na ay dubale fàq leen ay yet xam ngeen seen noon noonu léegi Fran Juan Branco wan leen seen i xeex bi yéen ko xeex wax na leen ko comme France nanguwu cee yéen nanguwu cee yàbbi ba xeex bi amee ba léegi ñi rey doomi sénégalais yi France waxu ci Juan Branco génn na France ci boppam yëg na li xew complice la plainte yi mu def France ci boppam complice la France ak Macky Sall ñooy nasaka nocc rey gi Macky Sall rey Sénégalais yi France ci ànd ak Macky Sall ndaw yi France ñoo toog fa ñu koy réunion fa ñuy nasee fa ñu nocce fa ñu ko doon waajale fa ñu doon tegee fetal yaag yooyu jënd armes yi Juan Branco dem na ba ne France ci boppam day jox ay sox Macky Sall pour mu boom Sénégalais yi Juan Branco wax na loolu ngeen toog di xoole ngeen lu ngeen di lan la Sénégalais yi di xaar lan lan lan lu ngeen xamatul lu ngeen bëgg a xam léegi lan moo leen ump lan la léegi jëfa fi des jëf jóg 2007 lu des dafa jot jóg fi pour xeex maliens yi xeex nañ ba jël seenum réew téye algériens yi xeex ba génne France Algérie ci xeex gat sa ba ñu may leen seen jàmm ñu jël seen gaz ak seen pétrole téye Paul Kagame ànd ak Rwanda yi Rwanda dëkk du dëkk dara Rwanda du dëkk dara waaye am nañu fulla rayante ba génne France sànni ci àll ba bàyyi làkk français bi di làkk anglais France ñu wax wax ñu ne ko da ngay jéggalu France jéggalu ñu koy soog a wax ak moom mais dañ koo génn ci àll ba yéen nag bu ñu waxee ñu naan barki sëñ bi barki sëñ Touba barki El malik barki Mawana Cheikh Ibrahima Niass barki Limamou Laye barke barke ku nekk ak say maam yu baax maam yoo xam ne maam yi bu baaxee mais mbaax gi pour lan ana mbaax gi amu leen fulla moomu leen seen bopp ay jaam ngeen ana maam yu baax yi ana ñu lu mu jëriñ dañu waxante dëgg

muy benn esprit de sacrifice de don de soi bu am solo boo xam ne tamit dafay baax ñu taxaw ndokkeel leen jaajëfal leen ñi nga xam ne def nañ déplacement bi yëpp c'est des vrais patriotes ñoom ñëpp ñi ngi leen di jaajëfal ci seen mobilisation seen taxawaay ak ci seen ñaxtu bi nga xam ne def ngeen ko fa te ñaxtu boobu lu ama ama ama am solo la ndax jamono bi ngeen ko def dafa nekk jamono bu am solo dafay fekk CPI jamono bi nekk ci ay rencontre yu bari yoo mi def le procureur général au niveau des États-Unis ñëw na fa visiter que ki aussi euh, euh, euh, les ONG yi nga xam dañuy am di ak at mu def ay réunion annuelle ci waxtaan ci lépp loo xam dafa làmboo ak ak doomu doomu at mu nekk dafa am lël ndaje réunion bu ñuy def annuel ca biir CPI jamono bii ngeen dem tey jii démb ak barki bu ñoom ñi ngi woon ci loolu ak ONG yi ONG yi bu leen fàtte ne Amnesty International dañuy def enquête ci li xew Sénégal Human Rights Watch dañ def enquête ci lu bari ak ay Croix-Rouge ay ONG yi bari yu nekk Sénégal yoo xam ne def nañ seen ay enquête ci suuf

te buñ nee lëlu CPI ak ONG yi ñenn ci ONG yi daañu waxtaan ak CPI ci li xew Sénégal am nañu ay preuve am nañu seeni enquête am nañu lépp waaye nag loola lépp su ma koy wax tamit waxuma ko pour ngeen ne yàcc ne yasar naan na sëriñ bi ñaan ak barke diw ak barke diw moo tax yu ci bari du ko sawar di wax parce que sénégalais dafa bëgg lu yomb li mu war a xeex day xaar ONG bi di ko ko xeexal wala Juan Branco di ko ko xeexal wala wala wala déedéet xeex bi dafa bari ay façon ONG bi day xeex avocat bi di xeex waaye yow citoyen bi nga war a xeex mu nekk ñetti façon xeex yoo xam ne kenn ku ci nekk dafa am fooy féete ci xeex bi te yépp war a taxaw nekk ay xeex loolu mooy tax ñu mën a am ndam waye ki wara xex ci mbedd mi tok bank ay loxom ne amna xwan di xwan ngay xex ci tribunal ba ki wara xex ci mbedd mi bank ay loxom ne ah Amnesty de mom ma nga ñuy ñaxtul ak ak Human Rights Watch Croix Rouge ñom ONG yi nga ñuy xexal kon nañu yàlla waaye ñu amon dal yàlla lañu yàlla may ndam bañu am na nga tok na pat di na paja sa jeeg di xaar ñu defal la liggey ba mu soti na nga yéeg ci sa kaw jeeg paja ba sa xol sedd na barki serigne bi te bo na fekk yàlla na fi yàlla bàyyi serigne bi yàlla na fi yàlla na fi yag te wér ñi doon xeexal doone barki xowaan doone barki de barki sëñ bi sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér te xowaan a doon xeex sëñ bi xeexul dañoo bëgg lu yomb torop nañu génn ci loolu te jóg xeex tey mooy ñetteelu àjjuma bu Ousmane Sonko julli jiwul àjjuma dérangé wu ci kenn ci yéen ci yéen doon taxaw naan boo ko laalee boo ko laalee ba kañ tey le 23 àjjuma suba le 24 samedi gannaaw suba le 25 àjjuma dimanche ngeen jox rendez-vous pour génne Ousmane Sonko këram maa ngi ciy woo ñëpp. Sénégal gépp na ngeen jóg ñu dem kër cité kër góor gi génne Ousmane Sonko ci jaay doole gi ko Macky Sall yi tega ki Antoine Diome teguwul fenn dàq ay avocat am ñoo jot ci moom dàq ay mbokkam mun ñoo jot ci moom dàq ay ñoñam ñi mbokkal parti politique mënu ñoo jot ci moom tëj ko ci këram du wax du dem du dikk te teguwul fenn lu dul ci bëgg-bëgg Macky Sall képp moo ko def jaay doole ci réew mi kon réew mi doole amatu fi benn doole fi am maa ko yore kon yéen askan wi Ousmane Sonko dénkoon boppam ana seen doole. wala tàkk ba suba ki samedi bi àjjuma samedi dimanche ci fan weekend yoo xam ne kenn liggéeyiwul lay amul. ndakaari gépp waroon a jax Ousmane Sonko génn fi mu nekk par force lu ñuy xaar lan la ñuy xaar pour tey ci àjjuma gi ci guddi gi ñu tàmbali xeex bi ci guddi gi ak samedi beeg dimanche bi Ousmane Sonko libre ci weekend bi balaa altine bàyyi wax waxi tabaski waxi ay ñawaki waxi ay léttoo ki waxi ay gëndi dàll ki ay yëfu tappale yooyu kenn talu ko yéen ñëpp ay fàqir ngeen mënu leen tabaski bàyyi leen waxi tabaski te ñu jóg xeex ci week-end bi Ousmane Sonko génn loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg léegi nag gannaaw loolu nee nañu dañuy jalak jalak bi nee nañu jeex na jébbal nañ lañu tënk ci jalak boobu Moustapha Niass màggatu xubidaas dooberaam jooju moog Macky Sall ñooy complot màggatu xubidaas li may waxoon rek màggatu xubidaas ñoo tee réew mi duñ ko bàyyi ca Senghor ba léegi les mêmes waaye léegi mu jeex bu soobee yàlla lan la ñu léegi information yi ma ci am mooy daal Khalifa Sall moom biñ ne woon dangaa bëgg a bokk wala bëggoo bokk mun damaa bëgg bokk nooy bokkee mun a man a ma tànn man daal sama ndong la ñuy diri fu ma daanu baax na café wala attaaye mun a bu ma ci am baax na na tàng suukar ou suukar mu ne leen man ñëw taawuma suukar attaaye bi wala café bi bu ma ci am baax na fexe leen mu tàng rek dégg naa moom daañu ko fexe bagaimana bawa ke election ini. Kita kata kita ni sopir ay luah. Artikel 28, artikel 29. Wala artikel 29, artikel 30. Lagi nara modifiye ak artikel 57. modifier ko pour lan, pour kan? Pour khalifa sal ak kese mom lañu defal ben luah. Te yeen ñep nga xamne jang ngeen def ngeen ay étudiant universitaire. Première année lañ lay ñëk jang première année université lañ fak lañ lay jangal la tout loi a une visée impersonnelle et de porté portée générale mënuñoo tëgg ab loi boo xam ne dañ koy tëgg pour benn jëmm loi kenn du ko defar pour benn nit boo koy defar da nga koy defar mu bañ a am benn jublukaay waaye làmboo askan wi yëpp nga xam ne duñ ne pour kii la wala pour kee loi kenn du ko tëgg pour doomu aadama waaye naka la Macky Sall ne dafa bëgg jàmm ci réew mi ne day jale ñu jale ga ba noppi mu ne day teggul ab loi boo xam ne pour Khalifa Sall kottu kottu kottu kottu moo tax mu koy tëgg ndax Macky Sall may mais kii dafa bëgg a taal réew mi Macky Macky ku mu yab ñu tokki ci bi di ko feneen ah am dialogue dialogue dialogue dialogue dialogue amul waxoon nañ leen dialogue ñu parce que day tappale day politique mais dialogue wul jàmm bëggul jàmm réew mi dina tàkk ci kawam noonu ndax daañu daañu taal réew mi ci kawam moom Macky Sall parce que day tappale te doomeel am réew moo xam ne ba nga bëggee rocci Karim da nga ko rocci sànni ci àll nga ba rocci xalifa rocci sànni ci àll ba tey nga ñëw ba soxlawaat leen pour roofaat leen nga ne loi ba nga tëggoon pour rocci leen loi boobu ngay ñëw tëggaat pour roofaat leen yaay roof yaay rocci te nga ne woon bàyyi nga njuuj njaaj waaye mosoo bàyyi njuuj njaaj ndax ci njuuj njaaj nga juddoo dañ laa njuuj nga njaaj ci juddu ci njuuj ak njaaj ngay dee Macky Sall waaye bi yoon ñi ngeeg suñu ay yett yoo xam ne buñ la ko dóora da xam ne lépp benn njuuj njaaj jeex na par force doo suñu la may dara doomi xaram yi nga yaakaar ne réew mi yaa moom ba koo bëgg a rocc rocc ko ci loi boo demee ba jëmmi jamono nga bëgg koo roofaat soppi loi yi di tëj ak tijji di defar rek nocceeg nasa ko di njuuj njaaj ci suñu loi yi code électoral bi constitution bi lu la nga soppi di changer saa su neexee en fonction de contexte bu mu la neexee élection bu mu la neex ku bëgg ko bëgg mu bokk ku bëgg mu bokk lu mel ne réew mi yaa moom yaay xool kuy bokk élection ak ku dul bokk élection nga ànd ci Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ñu ngemb la nekk say géwal léegi di leen accu waxoon naa leen kuy baaxee leen jaas waxon na len waxi Khalifa Sall jalu mus jalu mus bu ngeen di wàqi daj kanim wad nga sànn ci Allah ba ne nga da nga ne nga ya ko top ba japp ci mom 138 milliards ak 10 milliards yo xam pour état la ba sank ci suba fay ko nga tej ko kasso ba mu neex la nga fay lampi dakar yepp couper internet bi dugal ko ci avion mu ne may kan xamul fu mu dem Qatar ba sank ci suba xamul lu tax nga genn ko rew élection législative jàll fi mënta bokk élection présidentielle jàll fi mënta bokk ba élection législative jàllaat 2017 élection législative nga ne ko 2019 élection présidentielle jàll nga ne 2022 bi élection municipale jàll nga élection législative Dial en juillet 2022 nga ne ko doo bokk ñeenti élection romb na fi nga ne Khalifa Sall do bok Karim Wade do bok Macky Sall nga def sa ñaari mandat ba jeexal wala dem di xëccu ay ñettelu mandat bo ñenee ko tuddu di ut lu jaxase xelu nit ñi ak lu jaxase réew mi ba indi fitna pour nit ñi rayante ngir ba élection baña am nga bëggoo pousse ba tax la léegi nak ña nga beddi woon sànni ca àll ba ne mun leen a bokk tuumaal leen kii ñaari milliards Khalifa Sall yu mu sàcc ci réew mi ci mairie Dakar tekkee téeméeri milliards ak dégg nga maam fanweer ak juróomi milliards yoo xam ne nee nga na sàcc Sénégal muy doomu Abdoulaye Wade Karim Wade nga génne ko réew mi ne mënta bokk ci élection ci réew mi lu dul mu fay alal ji nga xam ne da ko randal te réew mi moom ko tey nga ñëw ba jeexal war a dem nga ne wooy dangay ngay waxtaan ak ñoom ngeen njuuj njaajaat dag ba dee nas nasaat lu njuuj njaaj ay lu jubadi na réew mi yéen a ko moom yéen ñu toog ci di di dialogue yéen moom réew mi xool saa su leen neexee ngeen rocci su leen neexee ngeen roof saa su leen neexee ngeen def lu leen neex ci réew mi ñun ndaw ñi ñun ñi ëpp ci réew mi ñun askan wi ñun ñun amuñu lu ñuy wax ak lu ñuy bëgg ku yëngu ngeen rek loolu ñu ngi suñu kanam te yàggatul yi i sal loolu jeex na tàkk ci réew mi anu suñu 138 milliards yi nga tumal Karim wad anam nga ne da ngay dem procès révision de procès manam ya fenon gitu, na Karim kat japp nañ ko amal nañu xay dafa sacc Allah réew mi ñu togaat ya, ay juroomi at juroom benni at nga ñëwaat na ah lol dañ koy xolaat han nañ ko nañ ko defaraat ndax atté bi dal est ce que mucc na ay dañ dañ koy wat mais yeen Sénégalais yeen du gën ay nit quoi bi de na Macky mi mu dafa ëpp Macky sax ibo woon ko fekk bar sax bu yagg kita dafa yàq sénégalais nee nañ lii mooy dialogue bi de lii lii la Macky Sall dox fen yi moom Moustapha Niasse ak ñoom ñu demoon ci palais bi gëmm dóoree ki ñoom ñëpp fen gis nga ne mag yi bu ñu jógul nangam tan seen ndey ñoom mag ñi réew mi du baax mukk parce que dooméraa bi màggati ñoo tee réew mi ay ki ay Khalifa ki ay ki ay nit dara bu ñu nangam tan uy doomi du baax ay comploteurs lañu fen guddi fen bëccëg nas not ci njuuj njaaj ay doomeraam lañ amul dialogue fii ci réew mi ndax doxuñu ci dëgg ñi wër te bokk la ñuy bokkloo ñi war a bokk ñu seppi leen ne bokk Macky daal mooy tànn moom daal mooy xool kuy bokk ku dul bokk Barthélémy Dias ànd ak moom naan maay dialogue ak maay anamu du ngeen ko dégg ana Barthélémy Dias dañuy dialogue yi buñ demu réew mi ak nga bala ana ana Barthélémy Dias anamu dama yëg rek ana Barthélémy Dias ana mu jóg rek jóg xeex rek nangam taan seen lu bon rek jóg nangam taan seen lu bon rek seen mëttuk uy kese ni ko mag ñi daan waxee mag ñi daaw ñu saaga waaye na nangam taan seen mëttuk uy jóg nangam taan seen mëttuk uy rek doomi xaraam kese gone yi jóg nangamtaan mëttu mag ñi rek na gone yi jóg ñu nangamtaan mëttu mag gone yi jóg ay doomi raam lañ dañ leen a yàgg complot mag ñi dañ leen a yàgg complot na sa ko nocci teg ko ci dégg nga maam bécco maire yeeg ak bécco jànq ji képp musu ñoo nas ak nocci ngir ndaw ñi musu ñoo nas lenn ci réew mi ngeen ñu amul lu ñuy sóor ci ah, réew mi di ko nas ngir seen njariñ yéen ndaw ñi musu ñu leen a boole ci dara kon jóg leen ngeen xeex li may wax nag jàllu muus la bu ngeen xeexul xam Juan Branco nee na mi jëm ëllëg ci seen détermination la ak ci seen pas-pas ak seen xeex ak seen fit moom li mu man mi ngi koy def waaye nag leneen ci jële dëgg-dëgg Juan Branco neena na bu a koy xeexal seen bopp jóg gat sa gat sa xeex wax na dëgg saa su ko neexee daal diw da ngay bokk su ko neexee diw dook moom mais mais Macky Sall moom mais Macky Macky li mu yabee réew mi dafa ëpp lii dafa ëpp waay dafa ëpp il faut que ñu am fu la jug taxaw xeex taxaw am fu am fayda dafa ëpp Khalifa Sall wër bokk sàcc na suñu ñaari milliards ñu def ko ci kaso bi gracier ko biñ ko gracier bobu ba mën ta bok élection yi bokul ci élection yi passé ni bokul bokul ci ben nee day dem dialogue day dem négocier day dem ñaani Macky Sall Macky day dem sukk summi tubayam jébbalu ci Macky Sall pour Macky Sall mën ko bolé Macky léegi mo yor avenir du Khalifa Sall Macky mo koy bolé ci ay élection wala moko ci génne nekatul loi nekatul droit nekul lim doon kaas yépp kenn bu mu taxaw di bëtt ay bëtam di joo ci mairie Ndakaaru ba ma xol ko kanamam lewet gi mu may saf kaw mu may saf kanamu xarum laadum buñ ne subal tabaski mu bët ay bëtt ak di jooy di fomp naan kon ci laa xam ne ab tappalekat la yow da ngaa taxaw na jëloo da ngaa taxaw mii ba àdduna bi ñu bari ànd ak yow nga def ay pétition man mii ma signé pétition ba ndax samay xarit yu ànd ak moom fexe ba signé loo ma ko ma amoon ci ay sikk sàkk ñu ne ma xalifa julul ma signé pétition ba na jëlul ndekete sàcc bu mag la xalifa Sall mii li tax ma ne sàcc la mooy moo mi ne woon defuma tey moo taxaw ne nañ ma baal kon man même su ma ko doon jàppale ci kaw jàpp na deful dañ koo tuumaal mënatuma koo jàppale ab sàcc la ndax moom ci boppam nangu na sàcc la ndax baal nañ ko grâce mu ne d'accord ñu war koo lijjanti pour mu bokk ci élection mu ànd ci dafa Karim Wade sax am na mérite Karim Karim moom fa mu taxawoon démb la taxaw tey ba tey jëluma sàccuma dañ maa tuumaal tooñ ma man ñaanuma dara amul kot bu ñuy modifier sama atte biñ ma atte ci kaw daan ma ci dëgg ci boobu laa bëgg ñu defaraat ko man loolu mooy sama mébét awuma beneen mébét Karim moom fa mu taxawoon ma Karim sax moo gën Khalifa Sall Karim Wade wallahi alazim sur le plan principiel Karim moo ëpp sax ay valeur Khalifa Khalifa Sall moom ñëw Khalifa Sall moom doobéram la Khalifa Sall moom dund dara moom sàcc bu mag la ndax nangu na ne sàcc la ndax nangu na ab sàcc laa mooy nga ne jëluma ba yàgg nga ne jël naa waaye baal ma ñu baal la nga ne waa léegi fexeel daal ba euh, nga boole ma ci mbir mi waaye fexeel ba ma bokk ci ndékkili ñu ne ko ndékkili de sexew la wala kafe Touba boo ciy naan mu ne man waay bokkul ma leen man uma ku may taamu ci sexe wa café Touba waay waay na tàng dong ñu ne ko suukar bu leen neexee def ci suukar bu leen neexee bañ ngeen suukar sama yéen nëwu ci xalifaay wax loolu de Karim nag bañ ko ne kaay ndékki ndéeguli def na man ndékkiwuma ndékki Macky Sall du ma ko ndékki lu tax dañu maa tuumal ne damaa laal ndékki jaamul yooyu bala maa toog ci taabalu Macky di ndékki ak moom tuuma gii day dañ Karim ma Karim ma gën xali Karim ma gën xalifa Karim Wade mu daal lu Karim gën xalifa xalima ëpp mérite xalifa ci wàllu éthique ak ci wàllu moral xalifa gamul dara xalifa musiba la kon Karim moom ay mbiram sotteegul ndax moom révision projet la bëgg parce que deram lay sang moom deram honneur la bëgg a raxas wax na dëgg moo def deful ma ngay xeex moom pour que li ñu ko tuumaal bu fekkente ne du dëgg te loolu la jàpp moom ñu raxas ko ba mu set wicc ndax mu mën a garder li nga xam ne mooy dignité mooy notoriété mooy li nga xam ne mooy ak wegam xalifa nag moom amul lu muy ruus amul lu muy bañ ba mu juddoo ba léegi ci njuuj njaaj PS njuuj njaaj la fa nekk poste bu mas a am njuuj njaaj ko ko mas a def xalifa njuuj njaaj dong la amee ndomba tànk yi mu am PS topp ki nga xam ne mooy Mamadou Diop ba yàgg mu xuloog Mamadou Diop daal di ànd ki nga xam ne mooy Abdourahmane Sow wala Daouda Sow mu jóge fa daal di ànd ak Ousmane Tanor Dieng xalifa échelon bi mu am ci politique yëpp njuuj njaaj ak cogg moo ko ko may xalifa mii ngeen gis ni kanamam ngi di ma saf ruy bu dog du nitu dara waaw maa ko wax li may wax kenn du ko weddi yàq suñu ay liste législative ndeg ñu ne yeewi askan ba léegi yaa ngi liggéey ak Macky lu ñu wax nas ko ci yeewi askan Macky xam na ko Khalifa di ko ko wax ñu ñëw ba élection Ousmane Sonko def ko tëdd liste Khalifa yàq liste ba nara yàq liste Dakar yëpp Khalifa di ñu njaay ànd ak Macky Sall ci suuf di liggéeyal Macky Sall Macky seetu ko ndeyam dee Macky ne da ko jàll ji mu toog ci kër ga Macky toog ci uh, càmmoñ bi mu toog ci ndeyjoor bi di di nax sénégalais yi jël kanam gi féetalu ko aj ak jak di wane ne dafa mere Macky te boobu moog Macky ñoo nax seeni nax ba Macky ñu seet si ko ñuy wax ci suuf di dama leen teg ñëw mu yaakaar ne moo gën a mu sénégalais seen façon gu politique yi xeew yooyu anam ana loolu lépp tey lépp feeñul lépp feeñul damay laaj li may wax lu ci amul ngeen dama amut duñu sosal kenn kenn ku nekk sa kéem li ngay jëf wala nga di ko wax moom la ñuy yëkkati waat teg ko ci ko taabal yi fàttali ko askan wi bu la naqaree kay sa jëfa nga bañ koo jëf wala nga bañ koo wax lu ñu fi waxal xalifa moo ko wax ak Karim kuñ ci waxal lu ñu nekk lu ñu la waxal yaa ko def yaa ko wax duñu sosal kenn loolu mooy lan léegi nag Moustapha Niasse ngay dagale ay kayitam nas nañ la ñuy nas nan dañuy modifier ay loi mënuñu fee modifier benn loi ci code électoral bi boo xam ne dañu koy modifier modification boo xam ne dafay viser benn individu wala muy viser benn groupe loolee du am ci réew mi du fi am dañu ñu bàyyi ci assemblée ba sax ngeen koy voté mun leen fay voté woo assemblée député yi ñuy voté benn loi boo xam ne pour Khalifa Sall képp moo ñu koy voté loolu amul fenn amul loolu principe de droit la loi moo koy tere du ñu voté benn loi pour benn jëmm wala benn ngir wala benn askan mënta ne loi bu ñu koy voté dañu koy voté pour ñëpp bu fekkee njariñ la ñëpp mën caa jariñu bu fekkee luy lore la ñëpp lore ci waaye tëgg ab luwaa yóbbu ko ca pencum ndaw réew ma ne dañ koy wote pour benn nit lañ koy fàggul mu mën a am njariñ ca luwaa ba amul fenn ci àdduna bi c'est un principe de droit xeex ak Macky du jàll ñuy modifier ci code électoral bi dañu koy modifier ci code électoral bi mu concerne képp koo xam ne li ñuy soppi ci luwaa bi bu ñu ko soppee la ñuy jur comme conséquence dina la concerner yow da nga cay bokk waaye duñ ko defal benn nit di ko xañ keneen day leer de képp koo xam ne dañ laa xañ ne la mënoo bokk ci ay élection ndax daan yu ñu la daan bu ñu soppee loi bii nga xam ne dañ koo bëgg a soppi te Khalifa Sall bokk ci ñooñee ñu bëgg ko cee boolewaat li ci dugal Khalifa Sall moo ciy dugal ñëpp ñoo tëgg ab loi boo xam ne day tànn ka euh, dégg nga maam euh, seppi naan kii mooy dugg ak kee du dugg loolu loolu loolu loolu Macky bu ko defee réew day tàkk toute loi a une portée générale et un caractère impersonnel il faut veiller ut leen ay yat ut li nga mëna a xeexee ya taxaw leen dañuy xeex ak ñoon parce que ci njuuj ndaj lañu jëmaata ñun pour bëgg tal réew ci yoon du leen téy nak seen loxo dañuy bay ba mu tak ñaan ñu am gone yi fekk mag ñe ko tal ci seen ay fen ak tapalé kenn du ci wax ñi ngi fen dé ak Moustapha Niasse ak mag Sall ak Khalifa Sall ñi ngi nas dé sëriñ saa ngi ne pat tok japp sa japp do ci dégg kenn ko wax waye bu gone yi téy loxo mag ñi leen ay kat ngeen réew mi tak nga dégg ñom ñu commencé jóg eh, yàlla eh, nee na fen yi mais déglootuñu kenn ndokk ba ndaw ñu déglootuñu kenn ñooy seen kilifa bopp léegi dégluwuñu kenn am ngeen fulla léegi am fayda dégluwu leen kenn seen njariñ doon ngeen topp te yéen a yay da ngeen a yéex a jóg da ngeen a yéex a fippu da ngeen a yéex a am fulla da ngeen a yéex a gat sa gat sa da ngeen ko yéex def bu ngeen ko te a def koom Sénégal jóge na fi bu yàgg billahi amul werante da ngeen a yéex a xeex kon na nañu jóg taxaw farlu am fulla ci weekend bi ñu génne Ousmane Sonko ci seen tappale yooyu ñu ko dugal talu leen talul ay tappale su amul jàmm réew mi du am jàmm su amul jàmm kenn du am jàmm ci réew mi Macky Sall bokkul te du bokk te kenn mënut a muus ak maccaat ba Macky Sall bokk ci ay élection xanaa ñu dee. pexe yi mi nas nag pexe yi muy nas gannaaw fen yi ñu fen ne nañu force spéciale ñu dem ba ci yàgg ñu ne force occulte ñu dem ba ci yàgg ñu ne terrorisme ñu dem ba ci yàgg ñu ne rébellion MFDC Casamance temps yi ñu ngi nas ay Yaya Jammeh ak ay nitam ak Pastef ak yu kenn xamul léegi dem nañu ba bëlki démb Aïssata Tall Sall démb indiwaat na beneen wax bu bees parce que ñoom xam nga déggoowuñu dañuy tiit di wax waye ndok man suma sañon ñom bus bu nek ñuy jënd di wax man dama sawar ci ñuy wax ñom parce que ñom bu ñu waxee rek nga gis na ay fenn la ndax li ki di wax du bokk ak li kee di wax ndax Yoro je mi jox communication présidence bi déggul communication xamna ko baax sama xarit la mais xamul communication gouvernement communication gouvernement bi Abdou Karim fafana ni ko sama xarit la bu baax hamna baax xamna Abdou Karim fafana xamna Yoro je ñom ñaan ñepp sama xarit lañ xamna bu baax xamna li ñu man ak lu ñu mënul ki ñu dénk kàddu gouvernement bi Abdou Karim Fofana attanu ko mënu ko ki ñu dénk kàddu présidence communication Yoro Dia mënu ko xam naa bu baax li may wax amuñu xam-xam bi mënuñu ko loolu nag mooy feeñ ci seeni wax bu Moussa fal waxee lii Ismaïla Madior Fall wax lee Antoine Diome wax lële Aïssata Tall Sall wax lële lële kenn ku ci nekk kii jaar fii kee jaar fee kee jaar fee amuñu cohérence ci seeni wax loolu donc dafa doy pour xam ne ñi ay fenkat lañ ab lu toll ne gouvernement nga am ca bopp ba Macky Sall am premier ministre boo xam ne bëggoo ko waaye da nga koy korkoral boole wuñ ko ci dara xamul li xew yor ay ministre yu nekk ci biir gouvernement bi ak ay porte parole présidence gouvernement nga teg ji premier ministre sànni ca àll ba di wax loo ay ministre conseiller ak porte parole ministre de l'intérieur bi jaar fee ministre la justice bi jar fee ministre ministre des affaires étrangères bi bëtt sàkket bi ministre des forces armées moom bëtt jaww ji kenn ku ci nekk am saw lay kii jaar fii kee jaar fee xanaa bu ngeen amee xel yéen ñiy déglu tu ti tubaab ngeen xam ne ñii ay fen lañuy def aw fen kat day jub ñu bokk nañuy fenandoo wat gaal ak waaye ñoom ñett ñoom ñeent juróom ñëpp ku ci wax sa waxi bopp ngay wax fukki mënu yow fukki bi ci mujj mooy Aïssata Tall Sall moom day di wax moom tiit di wax musoram googu mu naan fii mu mel ne ku yor ndomb kuy musoroo ndomb nee na nee na léegi li xew police yi sax ñoo dóor ay bal police yi ñoo doon dóor moom léegi léegi day dàq ne fii di dafa bëgg a sauver Macky Sall ci nervi yi waaye nu mu ko bëgg a layalee ak sauver Macky Sall mooy léegi moom pour ñu bañ enquête ci wàllu nervi yi parce que loolu moom dañuy Macky Sall dañ koy condamné à vie moom ak njabootam du moom seen àdduna day yàqu léegi nag ndaw si mu dénk wàllu bitim réew muy Aïssata Tall Sall moom léegi pour mu wàññi musiba yi lay yi mu war a indi fent ko mooy léegi nekkatul ay nervi ay samba booy yuñ jël dugal leen ci nguur gi ñuy rey nit ñi waaye léegi police ak gendarmerie ñoom ñoo doon reyaate be mooy benn loolu la wax démb ca kër tubaab bi loolu la wax benn ñu ne ko waaw lu tax ñu def loolu kan mu ne police ak gendarmerie ñaxtu gi dafa àggoon foo xam ne seen bakkan moo ko doon des moo tax ñu génne fetal yi rey nit ñi en terme donc de légitime défense dañoo nekkoon ci ay position de légitime défense maanaam nga nekk ci mbiru dama dem ba sa bakkan nar caa des nga génne fetal dóor ko ngir sauver sa bakkan ay Aïssata Tall Sall mi ministre des affaires étrangères moo toog démb ci dëkk tubaab yi ci fii wax ko fa wax ju leer nañ xam nga loolu lu bees la ay nervi la police genn wax police ñoo ne ay nervi ay étranger ñoo ñëw ay samba bu jige bitim réew ñoo ñëw ay fetal won ñu ay vidéo ñëpp di gis numéro 9 bi Sadio Mané Antoine jom na ay force occulte mi ay sa tal sal 2021 mu ne won ay force occulte mais ci Kaba kabana ay force occulte dañ def enquête ñaari at enquête amul Ismaïla majeur Fall kenn ku nekk fenn Antoine ay sa tal sal mo ñëwaat dembu Paris ci digg tubaab RFI taxaw àdduna bi yëpp di ko dégg nee na policiers yi gendarmerie ñoo doon rey ñoo doon dóor ay bal te li tax ñu ko doon def mooy dañ leen a song song boo xam ne cocktail molotov yeeg commissaire yaay ak yooyee moo dem ba seen bakkan nar caa des ñu génne fetal rey ay sa tal la ko wax de am nga beneen élément buy dolli ku ci sa dossier bi muy waxi Aïssata saal Sall jooju J'invite Maître Juan Branco à prendre en compte les derniers propos du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, en l'occurrence Madame Aïssa Talsal, qui hier, lors d'une émission à RFI, a encore apporté un nouveau, un nouvel élément par rapport donc à leur ligne de défense. Avant, c'était des forces occultes, des forces spéciales, des forces étrangères, des terroristes. Maintenant, elle vient ajouter dans sa, euh, panoplie donc de, de de réponse une question de légitime défense. Elle avoue que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont tiré et tué des dizaines de jeunes manifestants sous le prétexte d'une légitime défense. C'est officiel, hein, c'est une voix officielle. Le ministre des Affaires étrangères sénégalais qui dit que les policiers, les gendarmes ont tué des dizaines de Sénégalais manifestants

yàlla moo dugg seen xol yi féewale leen fi mu toll nii Antoine Diome ni Antoine Diome boo bu toogoon ne Maître Sidiki Kaba bu lamp yi mu posé na ko Maître Sidiki Kaba moom ak Ismaïla Madior Fall bëggante wuñu Karim Fofana moom toog foofu ak Amadou Ba bëggante wuñu ñoom ñu toog di ay Aïssata Tall Sall kenn ñoom seen bopp dañoo bëggante wu dañuy xeexante booleen boolee ci ab saal ñuy fenal Macky Sall boo boo coupé courant bi ku nekk jël posan sotti ko ci sa kaasu mo boo koy naan bëggante wuñu moo seen fen yi Anggit. Lolo wan ngeen kosiat seetlu ci seeni wax di ko faram fàcce di ko xool loolu ay signe la yoo xam ne ñi am xel am seetlu dañuy xam ne ñii seen fen yi mënut a jàll ndax li ñu yóbbu CPI yi ñoom ñoo ko jox bu dee wax la ñoo ko wax bu dee jëf la ñoom ñoo ko jëf luñ leen opposé rek luñ leen sëf ci aw ñaawteef rek ñoom ñoo ko jëf ñoo ko wax ñoom ñoom Macky Sall ki Karim Fofana ki Yoro Dia ki ak ñoom ñu tudd ñoom ñëpp. waxoon naa leen fii ne leen jëkkëru doomu Aïssata Tall Sall bu jigéen doomam bu jigéen jëkkëram goro ay Tall Sall ki takk doomam bu jigéen Aïssata Tall Sall doomam bu jigéen bi nekkoon États-Unis jëkkëram moom moom lañ jox marché bracelet électronique yi ñu takkal ñoom El Malick Ndiaye bracelet yi ñu takkal gars yi ku dem ñu dañu lay yóbbu kaso dañu lay liberté provisoire takkal bracelet bracelet yooyu nga xam dañ koo surfacturé ay milliards la marché bi Aïssata Tall Sall bi moo ko négocié pour gorom bi takk doomam bu jigéen ci jamono bi nga xam ne maître Malick Sall ministre de de la justice mi mi Ismaïla Madior Fall remplacé moo ko yoroon yor marché bi. Malick Sall boobu ak Aïssata Tall Sall dañoo seq ay mbir yoo xam ne duma ci àgg waaye yéen juñu doy na ba dem xel ndax ay sa Tall Sall moom la yàlla xam doy na moo kanaara yem kanaara moom a kanaara ñoo yam la mu seq ak maître Aïssata maître Malick Sall ba Malick Sall jël marché boobu bracelet électronique yi ñuy surfacturé ko dix fois prix yi mu jël ko jox ko gorom bu góor boo xam ne moom ak frère am ñoo ubbi seen société ñu jox leen marché bracelet électronique yi frère boobu. ñoom ñaari frère la kenn ki moo takk doomu Aïssata Tall Sall bu jigéen ñoomi neen la waxoon naa leen ko fi dama leen koy fàttaliwaat li ñuy fen yëpp di coow lépp ci seen bopp lañ nekk ay marché milliards yu état bi ay bracelet électroniques ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay communication yu am biir affaires étrangères ay vidéo vidéoconférence ay équipement ay marché yu bari yoo xam ne ci biir ministère des affaires étrangères ay Aïssata Tall Sall day jël marché yooyu di ko jox gorom bi takk doomam bu jigéen conflit d'intérêt ak ay di d'initié yu garaaw a garaaw garaaw te nee na avocat la ñu nommé le ministre des affaires étrangères ci ministère bi ngay jël ay marché public ci agent public ci ministère bi di ko jox say goro ki takk sa doom lan moo gën a garaaw lool moom mooy taxaw di wax ay Sénégal état de droit la Le Sénégal doit respecter les conventions internationales le Sénégal est un pays qui se conforme au statut de Rome le Sénégal le Sénégal Moi, mi maître Aïssata Tall le ministre des affaires étrangères elle donne des marchés publics fictifs à son gendre le mari de sa fille au niveau du ministère des affaires étrangères nous

jël alal réew mi di ko lekk ñoom i neen seen biir gétt gi nag yeeg jur geeg bëy yeeg ñëpp ngi ci waaye dafa am ñoo xam ne bu ñu rattee meew mi ñoom ñooy naan ci gétt gi am ñoo xam ne ñoom duñu naan ci gétt gi ku na a yuuxu ne damaa xiif ñu doon la ballu fetal nga dem tëddi kenn du wax bokk ci gétt gi te doo naan ci meew mi kon ñi ngi leen di woo yéen ñëpp ci une forte mobilisation ci week-end bi àjjuma samedi dimanche bi amul mbootaay buy woote amul ku dul woote yéen ñëpp jóg ñu génn ci ndakaaru génne Ousmane Sonko ci li nga xam ne moom lañ ko teg te mooy barricade këram ba du dem du dikk du dëgg du yoon du justice moo ko dogal du kenn moo ko dogal nañu bàyyi doomu jàmbur ji mu dem ndax sondage yi nga xam ne def nañ ko gis ngeen sondage bi ci mujj fan yi yàggul ay société yuy liggéey Sénégal nekk ci pétrole bi ak gaz bi yéen ñi may déglu waxoon naa leen fii ne leen bi ñu defee budget année deux mille vingt trois bi ba voté ko dañu programme ci budget bi des recettes budgétaires yoo xam ne dañu koy tiire ci pétrole bi ak gaz bi ñuy jaay ñoom dañoo jaay gaz bi ak pétrole bi ci année budgétaire bii en cours te ñoom la sincérité du budget est un principe d'élaboration du budget le budget doit être donc sincère pour que nous mën voter à l'Assemblée pour que nous xam ne c'est il faut que les données macroéconomiques tant du point de vue endogène que du point de vue exogène soient des données objectives des données atteignables parce que c'est une prévision annuelle de recettes et de dépenses Il faut avoir un caractère scientifique pour que nous mën valider voter ko mais ba ñu ci budget bi député yi maa ngi wax le budget n'est pas sincère parce que projection de recettes yi ñu de la commercialisation du gaz et du pétrole courant année 2023, c'est du mensonge kenn du fi jaay pétrole ak gaz cette année 2024, ça sax kenn du ko pétrole bi gaz il faut compter 2025-2026. Maintenant, man ma leen ko wax samay wax du dañ def nañ ko ci budget daaw bi jaay ñu foog pétrole def nañ ko ci budget ren bi 2023 bi benn dërëmu pétrole du génn ay fen la Macky day fen day camoufler ay déficit budgétaire di defar budget boo xam ne c'est un budget fictif mais comme député yi amuñu xam-xam xamuñu le principe les différents principes qui gouvernent xam nga l'élaboration d'un budget le principe d'unicité de de de des caisses le principe de sincérité hein.

ñuy liggéey ci pétrole bi gaz bi ñoom ñun ni ñuy coowee réew mi di tàkk Macky di uti ay fatal di xeex ak ñun di jël xale yi di boom di rey ñu naan CPI suñ Muntaxa ne pat suñ Mbay Si ñoom ñëpp kenn ku ne pat réew mi yëngu ku nekk di wax dafa am ñu ngeen fàtte waa Woodside diñ jox Sangomar ak BP bi nga xam ne moom ak

Cosmos exactement Cosmos pétrole bi il faut ma dikkaat ci sama fiche pétrole bi si pétrole bi ci li ma ci wax waaye comme dama cee gëj a wax fi mu toll Cosmos ak BP ak Woodside bi ñu jox Sangomar pétrole ñoom ñi ngi ne pat mais ñoom ñi ngi def ay sondage ci réew mi dañoo def ay milliards def ko ci investissement yi les gros investissement ñoom ñoo ko def def seen alal. léegi ñoom ah réew mi bari na coow Macky Sall jeexal na xam nañ ko xam nañ nekk ci constitution bi ils des juristes yoo xam ne ñoom xam nañ bu baax li xam Sénégal constitution bi lépp la ñu xam defuñu seen xaalis ci réew mi pour nga ci pétrole be gaz bi génne ko ci neen dañ koy natt ci jàmm yëpp dañ koy xool ñoom parce que tamit <laughs> ah, ah, ah ki kat waa naan mag du fecc yàlla naa dee waaye dëgg ñoom ci suuf ñu ngi def ay sondage jël seen alal. jël ay bureau d'études yu xarañ yu dëkk ay Australie ay tubaab yu jóge Australie ak ñu dëkk Canada ñu dugal leen Sénégal société tubaab yu xarañ ñu defal leen ay sondage ci réew mi ci politiciens yi kan moo mën a gañe tey bu élection amoon def nañu ay ñaari sondage ñaari sondage yëpp jox leen ne leen Ousmane Sonko mooy gañe premier tour bu élection amee tubaab yee def de du Macky Sall tubaab bokkul ak sondage yu Macky Sall yii tubaab yee ko def tubaab yi Woodside ak BP Cosmos déglu leen bu baax li ma leen wax jalu muus na Woodside def na ay sondage am Cosmos BP def nañ seeni sondage parce que ñoom dañoo jël seeni koom-koom def ko ci réew mi jënd seeni matériel def lépp nag investir pour pétrole bi gaz bi génn ñu mën a jaay fayiku bu réew mi takkee arrangé wu leen donc ñoom dañuy natt xool ba xam kuy falo ku dul falu buñ tëjee kii nu réew mi dem parce que réew mi bu tàkkee pétrole de gaz bi dina génn kan moo leen fi wala mu dem lu leen ci gën a ñoom dañoo am seeni xalaat ci réew mi ndax nag réew mi nag dëkkuñu nag dañu fay def seeni dërëm kon ñoom it réew mi nar a yàqu ci Macky Sall dañuy ut keneen koo xam ne mën nañoo négocier ak moom des fi dañu fi jot dugal ci alal ñu fexe ñu bàyyi ko ñoom ñu àggale liggéey bi ba mën koo génne mën koo jaay jëlaat seen alal après dem parce que ñoom duñu waaye nag duñu seetaan réew mi nag di tàkk nag seen alal di yàqu ñoom it nag dañuy saytu xool di làmbatu di xool ba xam réew mi kan moo fi war a mën a falu coow li Ousmane Sonko Ousmane Sonko tubaab bi tamit ñu ne ah waa waa ji dañ ko xool ba xam coow bari na kat ñun ay étranger lañ dëkkuñu ci réew mi dañ fay ñëw pour ngàcc gaz ak pétrole waaye coow li kat ci waa ji Sonko Sonko waaye kuy Sonko Sonko ay tubaab lañu nag waaye nag nit nag fu mu jëmbat gerteem dana fexe nag ba ñett tool bi ba jur gi du dugg ci tool bi donte tool bi dañ ko ko abal dëkku fi ab doxandéem la buñ jox ab tool mu jur fa mu ji fa gerte ba gerte gi commencé jebbi ba gerte gi commencé sëq day nekk tool bi nag ba ruur ba jur gi ñu ruur duggu ci tool bi loolu la tubaab bi des tubaab bi nag ah suñu tool bi dañ ko ñàkk dafa suñu alal te réew mi kat jeex na ki ñu ko joxoon muy Macky Sall jeexal na dafa ñaari mandat article 27 bee ko wax constitution bi mënu mënu fee toogaat mënuñu ko ko wax nag ndax buñ ko ko waxee mu xuloo ñun waaye nag ah nañu saytu ci suuf de làmbatu xool ba xam ku fi war a toog ak koo xam ne am na doole pour toog fi ñu teel a xool ni ñu def pour négocier ak moom balaa moo ñëw liggéey bi yàqu. duñu toog ba mun a xës ki suñu kaw ñu kii nañu anticiper jalu muus anticiper ci wolof mooy jalu muus tubaab bi ñoom dañuy liggéey dofuñu amuñu ay maam yu baax ak maam yu bon xamuñu Sëriñ Tuubaa ki Alaaji Maalik ak ay mag ñu baax ñoom xamuñu loolu ñoom ay xale yu ndaw ñoom Mark Zuckerberg vingt cinq ans ki ñoom Juan Juan Branco ki seen xel yi la ñuy dox ñoom seen doole yi mooy seen xel yi xale yu ndaw xarañ amuñu ay mag ñu baax ak maam ñu baax toppatoo wuñu yooyu yàlla lañ jox xel mu di ci liggéey di ci mos di ci nappaaje ci seenum xel lépp ci xel lañ ko teg ñoom teguñu ko ci ay mag ñu baax duñu xaar bam na xës ki seen kaw ñuy pëyi pëyi dañ koy jëri ca kaw àjji ko ñu ne waaw nañu làmbañ nag réew mi xool ba xam ne ku fi am doole koo xam ne mën naa yor réew mi nag sondage nat saytu bu ñu ko nattee ba xam ne diw mi la nag ñu xool naka la ñuy def bi nag ba seeti ko wax ak moom ci suuf bu ñu war a jàppale sax jàppale ko ngir bu ëllëgee bu ñëwee ñu xool lu ñu def ak moom tubaab bi tubaab noonu lay liggéey ni ma loolu mooy am mais ñoom noonu la ñuy def en général def nañ seen sondage ñaari sondage benn bi ne leen élection bu amee Ousmane Sonko mooy gagné premier tour à cinquante deux pour cent minimum midi mu am cinquante deux pour cent coow lu jeex mooy benn sondage bi Macky Sall xam na ko ñoom xam nañ ko tubaab yoo ko def de bu ko Macky defee sax nga ne xëy na mais tubaab yi ñoom xam nga fal wuñu donc li ñuy def dañ koy def mu leer ndax ñoom fal wuñu mais bëgg nañoo xam kuy fal ba ñu fëggee benn fëgg bi làmbatu askan wi jële ay australien ak ay canadien ñoo def sondage bi Sénégal ay société de marketing et de sondage yu am doole ñu ne bu ñu demee élection Ousmane Sonko mooy gagné élection bi premier tour à cinquante deux pour cent minimum bu néewee ba néew man leen seen sondage yi baaxul de cinquante deux xeet naa ko defaat leen ko xeeb naa ko xeeb naa waaye da baax na même bu nga ko defaat leen baax na cinquante deux mooy gagné moom itam mooy Ousmane Sonko day gagné rek ñu ne waaw nañ defaat beneen sondage. ñu defaat beneen sondage boo xam ne day wane ne même bu Ousmane Sonko gañewul premier tour bu ñu defoon élection tey Sénégal jàllul premier tour bu ñu demee deuxième tour ñëpp moom la ñuy àndal su boobaa score soviétique lay am ak candidat bu mën a taxaw ci réew mi boo demee élection ak Ousmane Sonko mu yóbbu la gétt ardo deuxième tour ralliement yi ñeneen ñëpp dañu ñëw ànd ak moom jox ko seeni i voix Sénégal gi moom la ñuy voté su nag moom score soviétique lay nekk quatre vingt quatre vingt dix pour cent lay jàll deuxième ñaari sondage yi société pétrole yi liggéey Sénégal def nañ ko ba mi ngi ñu téye ñoom xam nañu loolu ah xeex bi du Ousmane Sonko Macky Sall politiciens yi opposition bi de tubaab yaa ngi ci xeex bi ñoom dañ dañoo dañoo jël seen i koppar def ko ci réew mi di gaz beeg pétrole bi duñ ko bàyyi mu tàkk di naxasaay dinañ koy sàmm il faut que ñu xool kuy falu ndax tubaab yi mënuñoo falu réew falu sénégalais yi falu dañ ko bëgg xam ndax kooku mooy seen interlocuteur kooku mooy seen jëwriñ kooku la ñu war a liggéeyal suba dañ koy teel a fàggu ñoom duñu fa toog naan ñaanal kook dégg nga ba xam kan moo fi mën falu ñu xool nu ñu koy koy approché nu ñu koy jege ba xool nu ñu def ak moom tubaab yi ñoom ci loolu la ñuy liggéey amul sangotooki takki ndoom mbaaki dama ci xabru diw baak dama ñaanal ak dama jublu penko gi dafa ñaari rakk ñoom doxuñu ci yooyu lii laata tubaab bi di ko def Macky Sall def na ko defati ko ko def na ko juróomi yoon saa yu defee càmbar làmbatu kan moo mën a gaño ci réew mi ñu ne ko Ousmane Sonko xam na ko moo tax mu ne naa ko saagaagal naa ko booleeg justice naa def ay tappale def ay complot def ay diffamation fexe ba taxal ko fexe ba ne ko da bokk <laughs> waaye bi lay bàkk nga njàkk te nga xam ne bési ponk la koy bay xeex rek xeex kese amul leneen de amul xel mu dal amul sonko sonko amul yàlla baax na amul ñaan amul dem ci xabru bi amul mag ñu baax ñi amul dégg nga maam diisoo amul waxtaan amul noonu bu ñu yàq xeex rek Ousmane Sonko ci pale bi xeex rek ko bu ngeen xeexul du dugg ci pale bi lu leer laa leen di wax du xawaan banaan ko dugal ci pale bi du ñaana ko dugal ci pale bi du négociation koy ak jàll ko koy dugal ci pale bi du dara lu koy dugal ci pale bi ndax Ousmane Sonko daa bari ay noon ci màggati xubidaas yi nekk ci réew mi di dund ci réew mi dund ci alal gi nappaaje maire yeeg jéeg yeeg lekk alalu miraaskat yeeg sàcc alalu réew mi di ko tante ak baasaka takk ay maxtoo ki takk ay kaalaa ki yor ay kéek yor ay caga yi suuf di nappaaje di ko dundee ci alalu réew mi ñu ci bari dañoo contre Ousmane Sonko parce que dañ ne kii bis bu jotee réew mi lu ci bari loo xam ne ni ngi jege ci alalu réew mi dugg suñu poche caay ñu fi nappaaje jéeg lu ci bari bu continuer tamit daañu ko wax fu ñu ko teg ndax réew mi nag alal ji nag askan wee ko moom sëriñ si moomuñu ko màggati xubidaas yi moomuñu ko politiciens yi moomuñu ko tareexa yi moomuñu ko jullit ñi moomuñu ko catholique yi moomuñu ko amul benn famille bu ko fi benn dëkk moomu ko alalu réew mi waa réew mi ñoo ko bokk kenn ku ci nekk la nga la cee sa àq danga koo jot mais duñu ko jël nag xañ ko ñu bari am ñu ñu koy jublu di leen ko jox ñu di ko lekk guddi ak bëccëg di ci nappaaje parce que dañoo am ay sant yu cher ñu ñoo xam ne ñu ngi nappaaje que dañoo bokk ci parti politique di ci nappaaje parce que dañoo yor ay média di ci nappaaje parce que dañoo bokk ci homme d'affaires yi féete wàllu nguur gi ñooy daje seeni i gàmm daje seen i màggal daje seen i xew di xawaarendoo bokk seen i mbir di nappaajante seeni i ci alalu askan wi lañ koy teg loolu mooy jeex ci réew mi ci nii ak ci naa duñu leen may dara amul lu ñuy diisoo ak ñoom amul lu ñuy négocier ak ñoom dañuy xeex ak ñoom par force ñoom màggat yi téye réew mi ñu rey ñu wala ñu rey leen amul lu ñuy discuter ñoom amul papa amul yaay amul mag amul rakk amul kenn dañuy soppi réew mi par force neexaluñ ci kenn diisoo wuñ ci kenn dégluwuñu kenn laa la wax par force wax day leer parce que nag xog noggatu gi ak nappaate gi ak lekk xàq doomu aadama yi day bëgg a yàgg dafay bëgg a yàgg lii dafay bëgg a yàgg loolu ci réew mi ba ñu jàpp ne léegi lu jaadu la ndax yàgg gi mu yàgg te kenn mësu koo xeex jóg leen yéen ndaw ñi ñu ànd jóg leen gone yi réew mi jóg leen ñu xeex Escalou Lulerno. est-ce que enough is enough c'est vrai enough is enough lu ëpp tuuru loolu mooy enough is enough en anglais lu ëpp tuuru te li dafa lu ëpp tuuru olof a ko wax tubaab ne trop c'est trop anglais ne enough is enough wax na leer limpide rek comme l'eau de roche na leer rek bu leeree nag ñu soog a jëf gannaaw ba ñu xamee ndax yàlla moo ñu sant leen na ngeen xam na ngeen leerlu na ngeen jàngi uti xam-xam nee na bu benn ci seen jëf yi jiitu xam lépp lu ngeen jëf na ko xam njëkke xam leen ba noppi xam atte yi xam conséquence xam njariñ li xam lay lore xam la cay dëgg xam la cay fan ngeen soog a jëf jëf xam xam-xam la njëkk a wax soo cee jëf kon xam soog a jëf oye oyaye bige jambe diyala kaza onin konin tore pareta senegal sanje binala oye oyaye bige jambe diyala Kadavun ingdoling dole bareta sonko sonko binala. Oye oye ye biye jambidiala. Kadavun ingdoling dole bareta Senegal sonko binala. Oye oye ye biye तदा हुरिं गुरिं तुरे भरेता binala c'est ça loolu mooy suñu bàkk loolu mooy li nga xam ne ñuy kàttanal moo ñuy may doole moo ñuy dëgëral moo ñuy may fit kenn ku nekk ak li lay bàkk xam ngeen bàkk loolu mooy li nga xam ne ñuy dëgëral moo ñuy may doole moo ñuy may fit mooy tax ñu gën am pas-pas gën taxaw temm rek xeex Oh ye, oh ya ye, bije jambi diala, taza puring tole tore pareta. Senegal songko binala, oh ye, oh ya ye, bije jambi diala, kaza puring kuring tore pareta. Senegal songko binala, awet. Ah, Ousmane Sonko est un one shot maanaam benn xaax tëf la one shot mooy xaax tëf ci wolof xaw ma ndax xam ngeen ko xaax te di ko xoo tépp boo ko defee benn yoon doo ko def ñaari yoon waaw benn one shot la américain bi la one shot maanaam benn mbir la boo xam ne maanaam maanaam benn benn li ñu naan benn xalima la ci wolof benn xalima benn mbindin la benn façon la benn nit la boo xam ne mënoo mënoo gis ñaari Ousmane Sonko benn la benn yàlla benn la ci bind mooy la américain bi naan one shot one benn xaartan di ko tépp la amul ñaar amul ñett bu ñu rëccee musibaam bu leen rëccee ngeen yàq bu leen bu leen rëccee yàqu ngeen la waa gi naan wuy yàqu na ma ne ko yàqu gu bogasiri wuy yàqu na ma ne ko yàqu woo ndax yaa ngi sa kër dina paaje yàqu woo ba léegi ñun ñoo nar a yàqu la ñun bu ñu Ousmane Sonko rëccee ñun ñoo yàqu la yàqu naa googu bogasiri doon wax moom yàqalewul de ndax mook makee ànd ma ngeen na paaje këram yàquwul ndax fexe nañ ba génne ko ci ma nga këram di noos waaye ñun ñi nga xam ne Ousmane Sonko mi nga xam ne benn benn lanc la benn benn xalima la benn bind la benn one shot maanaam benn la boo xam ne benn bàjjo la ab bàjjo benn ñebe ci cin bu ñu xefee ba mu ba ñu faagaaloo ko sànni ko ci àll ba Sénégal dootu jóg ci njaam daa iman dootu jóg ci njaam daa iman xaw ndax dégg ngeen li may waxam am déet ngeen ma déggee masha allah bu ngeen ma déggul <laughs> bu ngeen ma déggul c'est dommage ah dégg nag dafa am façon waxuma dégg nopp de dégg nopp nopp du dégg nopp du dégg nopp du dégg de waxuma dégg nopp de <laughs> dégg bi ma bëgg mooy dégg bu ànd xel ak xol xel mooy dégg waaye du nopp foofu laa bëgg ngeen déggee bu leen rëccee rek musiba am te du yem ci yéen musiba gi da leen top topp topp seeni doom topp seeni sët ñetti génération dana leen topp bu Ousmane Sonko li muy yóotu bu ci jotul bu ñu ko faagaagalee dana feeñ ci yéen feeñ ci seeni doom feeñ ci seeni sët au minimum dana àgg seeni sët conséquence loolu nag jar na jóg xeex joxe sa bakkan jar na ñun ñëpp ñu dee ngir Ousmane Sonko mën a jàll même bu ñuy dee ba ko fi moom na defar réew mi ñun ñu tëdd ci bàmmeele na ko defar ndax suñu doom ak suñu sët ëllëg ñun ñu tëdd ci bàmmeele jar na ko même bu ñu fi dul fekk. Amina le jeune yàlla bu mu ñu rëcc waaw yàlla de moom baax na moom waaye nag li may wax weesu na foofu de li may wax nekkul ci yàlla bu mu ñu rëcc de li may wax jéggi na loolu. li may wax leneen la li may wax mooy acca boog nañ leen jóg xeex yi loolu xam nga moom romb na yàlla yàlla moom xam nga du xeex yàlla moom defal kenn dara yàlla bu mu yërëc ci d'accord na loolu moom d'accord loolu ñaan la ñaan nag moom ñaan la tudd xam nga ñaan moom ñaan la ñaan moom wurul ndax ku ñaan moom mën nañ laa may mën nañ laa gàntal kon loolu xam nga buuru lu wóoru lu la ñaan moom yàlla moom xam nga minu leen kenn xamul fu mu nekk mënoo ko làm ba daj moom fëgg rek léegi-léeg bu ko neexee maye bu ko neexee lànk na du maye te du te bu la mayul du la ko wax doo xam ndax may na la wala mayu la moom yoon néew du wax du nit kon loolu wóorut donte nag jaam war ñaan waaye ñaan koo xam ne xamoo fu mu ne xamoo fu mu la féete bu lay may doo ko xam bu lay xañ doo ko xam du la ko yëgal te du amul compte bu mu lay rendre nga bëgg a compter ci ñaan képp pour jëlee fi Macky fal Ousmane Sonko est ce doy na yaakaaruma doy na lañ ciy boole leneen te ay yat boole ak takk fi tu jóg ni ko xawaan baran ko waxee kon nañ ci boole bu ñu yem ci ay ñaani kese de réew mi nag ñaan aada la fi ba ñu tàmmee ñaan ba léegi xeexatuñu ba ñu tàmmee ñaan ba léegi liggéeyatuñu ba ñu tàmmee ñaan ba léegi ñaqatuñu ba ñu tàmmee ñaan ba léegi defatuñ dara dañuy toog na fàng ca kaw dina paaje suñuy jege suñuy jëkkër tey ñaan naan yàlla mooy def lépp yàlla mooy mindaan mooy fubere mooy may lépp mooy togg añi mooy def lépp mooy takk jabar yi mooy fi jëlee Macky mooy fal Ousmane Sonko yàlla mooy indi pétrole bi mooy joxe dépense lépp ci ñaan lañ ko teg ba loola xewee ba léegi réew mi demul am réew ñaan du ko doxal am réew liggéey koy doxal futteeku am fit àndandoo teel a xëy guddee wàcc di liggéey ci xam waaye du ay ñaan mooy tabax am bu ñaan doon tabax réew mi réewu jullit yi ñooy raw ci àdduna bi kenn dàqule na ñaan te ñoo gën a tardé ci àdduna bi ndax ñaan yorul am réew am réew liggéey yu koy liggéey moo ko yore ak xam-xam ak taxaw ñaan du règle ñaan exception la ñaan kenn du ci dëkk ñaan du lijjanti lépp bus bu ne liggéey mooy lijjanti aw askan boo demee ci liggéey ba ba am jamono nga tële ndax liggéey du bus bu nekk mu dox léeg-léeg ci biir liggéey nga dem ba yàgg mu ne kàkk taxaw su boobaa nag exception am na mbir bu daawul xew am na te liggéey mënu koo lijjanti su boobaa nag ci ngay soog a sukk ñaan xam ne lii kat yàlla am na lu xew de lu daawul xew dañ daan liggéey yow suñu xel wóolu suñu bopp dina sa ko nocc muy dox ñuy puus muy dox ñuy liggéey di mos dina paaje waaye nag tey agsi nañ ci loole affaire bi nee kekk taxaw machine bu doxul de am na lu xew loolu exception la nga ne xaaral ma fëgg buntu kat lii kat uma ci pexe uma ci xam-xam sama xam-xam jeex na ci xaaral ma dem ci borom bi mu dimbali ñu yàlla bu ko defee soo ko woowee mu ñëw ndax danaan sama jaam ku yeewu la ku xarañ la jox naa ko am xel na ko jëfandikoo ko mu di ko jëfandikoo di ki dund bus bu nekk du toog di ma woo du toog di ma ñaan ñaanu ma dara ndax xel mi ma ko jox moom lay jëfandikoo te loolu laa ko sant bi nga ci dund macha allah waaye nag à tout règle une exception xelam mi lu mu réewee mu di ki dund bis dina ñëw xay na mu gàtt mu am lu ko xel mi gàllankoor ba am lu mu ko yàqal su boobaa bu ci xel mi doyul nag bu ma fëggee ma dimbali ko ndax aada woowul tàmmul bus bu nekk di ma fëgg yow mii di ma déglu su ma ñëwee bés bu nekk sa kër di la ñaan bu yàggee nga jéppi ma yow yen ñi may déglu ñëpp ko ma ki tàmbal may ma may ma may ma bu yàggee bokkul ma la laal ciy tegal nga ma ciy tegal ndegam nit dong boko tamé ya, diko ñaan bi yag naan ki ku sof la ku mën ñaan la bëgg lu yom la duma la ak yalla motax ab julit du ñaan lu bari ab julit du def ñaan ñaan du metti julit du def fu mu toll di ñaan julit bu yaafuus ak bu yambar julit bu wul dara moy def fu mu toll di ñaan ku la dàq ñaan ci ab julit mo la gëna mo la gëna ñak dara ji julit bu am daraja du ñaan ki la gëna ki ëpp daraja ci yalla julit ni ki ci gën ci julit ni moy ki xam xam di liggéey di ki dund di ki tedd kooku moo tax yoon si yoon loxo bi joxe moo ëpp daraja loxo bi nangu ki la dàq liggéey ëpp lam xel di tàggatum xelam di ki dund kooku moo la ëpp daraja ci yàlla yow mu toog yaakaar na ñaan ak métier ñaan moom ku la dàq ñaan moo la gën a nekk lappatu ci yàlla ñaan ñaan moom du métier bay boo ngeen teel koo bay bañ koo tàmbal seen bopp te fexe di dund ci seen doole ak seenum xel bu ngeen demee ba lotta ca loola nag ngeen soog a fëgg buntu yàlla bi ndax yàlla ndegam nit dong lañ dul def foo toll di ko fëgg Macky Sall mi du ngeen ko dul fëgg bés bu nekk bu yàggee mu jéppi leen bu nekk nga jéppi ma waa ndegam yow mii dong yow te doo yàlla doo dara nit dong yaa mën a jéppi ku dëkke di la ñaan guddég bëccëg waa astama laak yàlla moom yàlla moom xanaa moom moom yàlla moom xanaa xanaa respecté ko tuuti respectez tout dit. Wow. après a un lien sur YouTube bi dem partager ko page Facebook c'est vrai que nous, sommes yëpp xam euh, quoi il faut épingler le lien du YouTube sur la page Facebook c'est important après le live wow c'est bien c'est une bonne idée c'est ça ñu xelante jàppalante c'est vrai que ñun moom dañuy pare rek tëj dem suñu yoon waaye bi yoon su ma paree dinaa jël lien YouTube bi yóbbu ko ci Facebook bi partagé ko fa comme ça et puis yéen ñëpp si ngeen mën a dem ci YouTube parce que YouTube bi moo gën a dëgër j'ai l'impression Facebook bi dafa bari ay censure dafa bari ay Facebook loo bind loo posté mu rëq sa ndigg fi ne la yóbbu la kaso YouTube nag dafa mel ne man YouTube man mosuñu maa censuré dafa mel ne moo gën a moo gën a moo gën a jàppale daal Facebook moom dañoo bari ay ñoxor ñoxor loolu Mark Zuckerberg sama waay la waaye yii moom inde mu yóbbu la gerte ardo ah jijee ngi noonu ah jijee xol xool jiji mi ngi soog a ñëw waaw kon jiji da ngay jël lien wu lien wu YouTube bi yóbbu ko ci page Facebook bi capp ko fo waa ji jim xam nga kii jinne miig nee na nañ ko def waaw wax na dëgg parce que fii YouTube bi moo gën a moo gën a stable daal moo gën a moo gën a ñëpp yërmande Facebook moom du la may dara bu loo bind mi ngi koy xool bu noppee daal di lay aj yóbbu la ca ajak balaf gaaw nañu loolu ci xooxatulaat YouTube waaw moo gën a dëgër kay bay boo ñu faral yóbbu fa ñëpp yéen ñëpp ngeen dem ci page YouTube bi abonné fa yéen ñëpp ngeen abonné wu aimé ko partagé ko jàpp leen ci yéen ñëpp ngeen partagé ko invité seen ñëpp ñu dugg ci YouTube bi dooleel ko parce que dafa mel ni moo ëpp doole comme ça ñu ñu di fa live bàyyi Facebook bi ñu bàyyi Facebook bi di live YouTube ñun ñëpp parce que moo gën a dëgër du noonu euh, waaw Ousmane Touré na imam YouTube c'est bon waaw YouTube bi waaw dañ ko partager fexe ba ñëpp dem fa parce que ñun dañoo tàmmoon Facebook ci lañ nekk ba moo tax mënuñu ko bàyyi man Facebook la la laa xam. même TikTok bi sax yaakaar naa waaye taaluma ko gëj naa taal TikTok bi damaa taamu Facebook bi waaye xam na il faut que ma dem YouTube waaw moo a yomb daal ndax YouTube moom même boo amul compte YouTube yaakaar naa boo taalee boo duggee boo tap boo tàppee YouTube rek di nga mën a gis vidéo yi direct mën ko déglu mais Facebook moom soo amul compte Facebook mënoo mënoo déglu Facebook te ñu nekk ci àll bi fii waxoon nañ ma ne ma naay dem YouTube parce que moo gën a oyof ci ñoom bu ñu jëndee seen passe internet yi parce que day gaaw jeex Facebook bi dafa dafa diis YouTube bee a yomb waaw waaw waaw même page bi la euh, les activistes sénégalais ni mu amee YouTube non la amee Facebook même page bi la waaw waaw waaw dama ko def ensemble YouTube bi ak Facebook bi en même temps ci la pas ci la live bi daw live bi c'est en direct sur YouTube ak Facebook en même temps mais des fois Facebook daf lay daf lay daf lay wala nga bind poste ci kii mu tëj sa compte wala mu téye une semaine deux semaines un mois doo mën a def dara su boobaa nag ci YouTube bi rek ngay mën a dem moo tax des fois day am live yoo xam ne YouTube rek nga koy mën def parce que Facebook ñoom dañoo metti quoi seen politique dafa metti lool. non day metti quoi. la monétisation de, du chaine de la chaîne YouTube permettra de financer le combat. waaw monétisation bi loolu moom yaakaar naa Jiji moo koy gérer mais dafa na ne sotteegul ba léegi de Jiji suñu page bi est-ce que mën nañ koo monétiser euh, na na na lan na mbàccum mbàccu ah mbàccum gerte mbàccum gerte bi jolli muut mbaa mot non Jiji ñi ngay wax li ñuy wax bokkul de suñu page YouTube activiste yi est-ce que mën nañ ko monétiser pour financer le combat loolu la kii bind nu mu tuddee sax xana Moussa euh, xam nga nag ki doon wax sànq ne nañu yóbbu kii bi ci YouTube bi loolu jiji moo koy bo bon hmm, yaakaar naa wax nañu on a tout dit là ah Facebook kay moom moom da lay man sama daf maa yobu ki suuf léegi nee na ma léegi dama lay. wàcce ba ci suuf suuf nga xam ne boo posté wala nga kii gars du ñu la gis dañ lay wàcce ci suuf référencement yi ci suuf la lay wàcce fi mu doon def ma 45 jours yoo xam ne ci suuf la may wàcc lu ma posté lu ma wax da koy wàcce ci suuf ba ñu ba ñu ko war a gis duñ ko gis fi mu doon daf may xeex euh, Facebook. waaw waaw moom man moom nilaar laa ci moom loolu yooyu moom xawma ko jigéen ne nilaar la si monétisation. yooyu moom xaw ma ko waaye waaye boo ci mënee comme gars yi ñoom dégg naa am na gars yoo xam ne ñoom takk nañ ci ñeent jabar ñu ñu ma ne ma yow yow live rek mooy si métier man loolu lu tax ñu ah yow YouTube bi foo dugg Akhenaton ah, direct Akhenaton ah, direct ba leen ah léeg-léeg ñu ne waaye <laughs> ah yi gan ñoo may def direct su may nelaw ñu ne Akhenaton ah, ñu ngi direct su may nappaajo ñu ne Akhenaton direct man man xam naa ne daal am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne ko fekk mi ngi live guddeeg bëccëg ma ah gars yi liggéey rek gaa yi industrie la ñu yore de booy nelaw ñu ngi liggéey sa kaw boo nappaaje ñu ngi liggéey sa kaw dañuy jël sa live jël say wax monté ko nag daal di daal di ciy bind direct Akhenaton étant direct ñu yaakaar ne Akhenaton day live fekk Akhenaton ngay nelaw moom wala ma ngi ci yeneen bu defee ñëpp yaakaar nañ ne Akhenaton guddeeg bëccëg mi foo ko fekk ñu ngi ci réseau di live guddeeg looloy métier ñu <laughs> ne wax dëgg leen di arrêté ma leen ah waaw bu ma bu ma ko arrêté YouTube ñoom du du ñu mosati te tey nag gaa yi nag ñu ngi na am na ñoo xam ñee ngi ci nappaaja takk ci ay jabar ñee ngi ci doxaan ñee ngi ci am ay moto gi oto eh, ah kon de YouTube neex na ñu ma ah, yii gars yi xeexuñu de gars yi seen bopp la ñu nekk de gars yi ñoom xeexuñu yéen yéenay xeex mais ñoom dañu xaalis ñoom ñoom dañuy dajale koppar YouTube di leen fay seen xaalis ñuy nappaaje seen i jeeg ci seen ci seen wax kese ah kon suñu wax ji am na barke ñun wax dong nit ñi di ci lekk ñu ne ma ah, yi nga seen kaw de ah, kon baax na loolu de kenn mënu ci dara. Euh, man de jigi daal moom na nga ko toppatoo jigi daal comme gaa yaa ngi mos ci suñu kaw ah jigi ñuy nag nañu fexe bi ñuy nag youtube bi ñu am lu ñuy xeex ñu xeex jigi loolu na nga ko lijjanti na nga ko lijjanti gaa yaa gaa yaa ngi gaa yaa gaa yaa ngi raay suñu kaw ñu ngi lekk seen i waagi na pàgge seen i seen i suñuy wax ñun ay sénégalais du xeex de waaye day bàyyi ba li ma li wax mooy cogg gi rek mbay yaa ñu doy jëfandule yéen ci mbay sëñ Tuubaa jóg ñu ne ko yóbbaale ju Babacar Sy ñu ne ko yóbbaale ju ak yoon loon di laayef ñu ñëw na cogg ca kaw di di mos jiiji bu live ñuy mos <laughs> ay sénégalais du xeex de waaye dana fexe ba am lu mos ci say wax ak sa xeex dana fexe ba encaissé kenn mos ta gis lu mel loo ci mën ah junior Ndiaye nee na lan nee na man de maa ngi mos ci tiktok bi ah junior da yow sax tu yow honnête au xam nga nëbbatu wooyu ku mel na yow man sax waaye am na ñoo xam dañuy mos ba ne mukk doo leen dégg doo boy wote xex boy finance duñ la financé duñ participer ci rek bi dañu dund ki sa ko ba noppi dix francs mali duñ ko joxe way yo sax am nga honnêteté sa ah man de magi mos ci tiktok bi am na ñoo xamne dañuy mos ba tak ba nappaage waaye way duñ way way way duñ ko wax ndaysan kenn mos gis lu melni ah waaw wax ba nit ñi di dund ci sa wax kay loolu kay da ngay sant yalla rek amul problème nañu gañ xex bi rek man lima ci yitel moy nak na law ba nit ñi dégg ba nit ñi yeewu ndax yow xaalis nga ci lek man nak yewu te doomu aadama yi xel yi ba nit ñi ne yar yeewu man lolo ma ci ñor na tas na dugg ci xel yi ben xel doomu aadama bu ma gindi ba mu leer naññi ba mu xamé ba rañé mo gën aduna li ci bir ben doomu aadama bu dégg sama wax ba ku ci lamuy defal ci doomu aadama bobu mo ëpp or ak xaalis bi ci àdduna bi yëpp buñ la ko joxoon yow mi wut xaalis utal xaalis man ay doomu aadama yu yeewu laay wër ñooñu man loolu mooy sama liggéey mooy fexe ba nit ñi yeewu ci réseau yi loolu mooy ki liggéey fexe ba xel yi tàkk yeewu ba jar man loolu ay milliards yi ci samay wax. kon na ngeen waajal ci weekend bi incha allah ñëpp. ñu jóg àndandoo fexe ba tappale yi ñu def kër Ousmane Sonko ñu yëkkati ko yëpp Sénégal gépp nañ jóg Ziguinchor rek région yi na ñëpp jóg ñu manifester ci weekend bi vendredi samedi dimanche bi bu ko kenn tay na ko ñëpp taxaw amul jafe-jafe amul jafe-jafe il faut que ñu réew mi ku soxal mënu ko defar nit da ngay généreux te générosité nekkul rek ci xaalis maanaam da ngay am yéene yéene ñëpp lu baax yéene ñëpp am yéene ñëpp tekki yéene ñëpp dund loolu moo tax ñuy xeex xeex bi ñuy xeex ni dañu bëgg seen dund lañu bëgg mu baax dañoo bëgg ngeen tekki dañoo bëgg seen doom yi tekki seen dund lañu bëgg mu baax li ñuy xeex yëpp génn lool. kuy wax ngi sa dund baax ca kaw wax ja nga dem yow ba am loo ci mën a mos loo xam ne yëgu ko nga di ko mos ci YouTube gi TikTok gi yoo xam foo koy mose baax na man loolu bañuma ko waaye lépp loo xam ne yaa ngi koy mos ci xeex bi waaye waaye na nga fexe ba bu xeex bi jotee nga di ci xeex ndax xeex bi tax ngay dund ci suñu wax ji ñuy xeex ci nga amee looy fayeeku bu ñu waree financé bu la ci kenn jiitu bu ñu waree génn xeex na bokk ci xeex ba bu ñuy waaye bu ci gis sa bopp rek bu égoïste daal ndax su ma neexoon tey jii yéen ñëpp ma signalé leen samay wax kenn dootu ko partage am naa mooy mais defuma ko dama leen ci bàyyi gi dama lay bàyyi ngeen ci dund ku ci a dund na nga gi ku naan ci meew mi na nga naan ci meew mi waaye naan ci meew mi ba noppi nag bu sàmmi jotee pour sàmmi jur gi nga ne du ma sàmmi bu ñu waree wëggi jur gi nga ne du ma wëggi bu ñu waree xont nga ne doo xont waaye bu ratt jotee nga ratt naan ba sa biir fees dem jaaxaan loolu nag moom yëfi baadoo la waaye ku naan ci meew mi nag war a mën a sàmmi na day leen partagé day ci jàpp ci xeex bi day leen financé ñu waree financé xale yi lu ñu war def parce que xeex bi lépp nag foofu la war a dellu kon man duma bañ koo xam ne samay wax mën nga cee am dépense loolu man bañuma ko ndax xeex bi may xeex pour nga am dépense moo tax may koy xeex Macky Sall sëriñ ci leen xañ dépense moom laay xeex pour ñu jóge fi puus alalu réew mi a agsi ba yéen kenn ku ci nekk mën a mos loolu laay kon loolu man awma ci li ma ci bañ rek mooy ku égoïste koo xam ne boppam dong xeexul ci xeex di di lekk ci xeex bi ba noppi doo xeex ci xeex bi kooku moom mënuma ko muñ waaye booy lekk ci xeex bi da bokk ci xeex bi di xeexandoo di mos di xeex waaye di mos ba noppi doo xeex moom loolu moom dëgg-dëgg as gor du ko def kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal ci taxawaay bi Euh, di leen jox daje fan yi incha allah rabbi ñu waajal suñu bopp jóg xeex ci weekend bi ku génne barrière yeeg yi fi caaxaan yooyu li ci nekk yëpp te ñu taxaw tem taxaw tem fas yéene xeex ak ñoom parce que ñi xeex rek moo leen fi jëlee pare wuñu pour dem pare wuñu pour négocier pare ñu pour ay élection li ñu bëgg mooy xeexante xeexal nañ jël nañ seen i seen i arme waaye dañuy xeex ak ñoom ndax CPI moom bu soobee yàlla incha allah rabbi balaa yàgg dañu commencé def seen ay enquête enquête yi bu ko day def ay mandaa d'arrêt déposé ko ñu ci bari doot ñu mën a dem duñu mën a dégg ñoom c'est terminé Macky Sall ak njabootam ak ñu nekk ci xeex bi ñu boom askan wi yëpp kenn du ci mucc c'est fini waaw loolu moom na leer ci seen bopp kon na leen yàlla sàmm sàmm réew mi defal ñu xéewal jàppale ñu ci suñu mëbét ak suñu coono suñu xam-xam suñu doole suñuy pexe buñ ca demee ba lott ci na ci yàlla dugal loxoom mu sotti bu fekkee nag mënuñu caa lott waaye suñu xel ak suñu doole mën nañ cee dund soxlawuñ ci yàlla lépp loo xam ne mën nañ ko defal suñu bopp ba mu sotti ñu am ci ni ñu ko bëggee soxlawuñ ci yàlla yàlla moom dañu koy woo ci loo xam ne lottu nañ ci mënuñu dara lépp loo xam ne def nañ ko suñu jëmm suñu xel suñu doole suñu lépp ba sës ba lott ci yàlla na nga ñëw mottalil ñu dooleel ñu kàttanal ñu jubbantil ñu joyantil ñu defaral ñu ba li ñu tële nga mottali ñu ko waaye lépp loo xam ne moom defal nga ñu ko mi nga ci suñu doole ak suñu xel ñu man ko nga baaxe ñu ko loolu moom soxla wuñ la ci wax day leer soxla wuñ la ci yàlla boo tëlee doo nga koy woo waaye bu tëlewul so soxla woo ndax moom yàlla amul jot bëggul saa soo fëyee di ko woo bés nekk yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla soxlawul amul jot moom boo koy woo farataak farataak na moo tax nga di ko woo farata bu taxaw temm moo tax nga di ko waaye foo toll di ko woo kooku ak yabel mu ngoog di ko dagg di ko fu ne dagg ko dugg dugal man man lolou moom xir man lima ci bëgg du yoy yëpp lima ci bëgg moy dag dagge duggal ko fu ne ba nit ñi jot ci man doomu adamay lay wër xelu doomu adamay lay wër man yeen bu ngeen ci wër xaalis ok man xelu doomu adamay la bëgg mu yaatu ngeen dag dagge ko duggal ko fu ne ba mu ag ci jëm yi yeen da ngeen ni wër xaalis man ay jëm ay xel lay wër bokku ñu programme du non da ngeen yalla sam sàmm seenu njaboot sàmm président usman Ousmane Sonko sàmm yan bi nga xam ne ñun ñoo ko ko yan guddal fan yi yëkkati Sénégal ci bépp màqaama jàppale ñu ci li nga xam ne ñoo ngi ci li ñu ci man mu seppi ci loxoom li ñu ci tële mu yor ci loxoom moom borom bi bu fekkee man mayees na koy wax noonu ndax yàlla du nit am loxo waaye nag il faut ñu wax ji ba ñu mën a xam li ñuy wax te incha allahu rabbi dañuy am ndam am nañ ko ba noppi ndax fen yi génn yëpp ñu teg suñu baram mooy suñu doole mooy suñu kàttan ñoom seeni fen yëpp mooy suñu doole kon li gi taxaw teem am fulla liggéey bi jël suñu bakkan yi teg ko ci ko taaba di xeex ak ñoom gàtt sa gàtt képp comme ni ko xawaan waxee Ousmane ko waxee ko ma waxee ko ne keneen ak keneen wax ko ñun ñëpp amul fukki wax amul juróomi pexe amul dem dikk amul nelaw benn yet rek a fi nekk yetu dóori teel xeex rek lu ñu bëgg xeex moo ñu koy may parce que ki ñu ko seqal moo tax bu doon nit la mën nañoo waxtaan mën nañoo diisoo mais du nit doomi raam la doomi raam nag moom mbaam la mbaam moom yet rek xeex rek xeex ak moom doomi raam